sëriñ gédé xamul dara dafay naxe uteeg mbay ak numbe yoruñ dara di ñafe amado kumba dañ leen a mbaalu ki ma ko foog am bu demoon bay am xar fayee ko bor toog jofal tabaski jofal jofal tabaski jofal Hey. jofal indeegul xaar bi indeegul xaar bi ñaari baat rek laa lay laaj nga wax ma naar bi kuy ndeyam mbaa nga wax ma naar bi kuy bàyyam mbaa nga ne ma naar bi fii laa xamante moom lu ko on oh, noonu da jël dinaa jël sa bakkan waaye nañ dugg si biir expliqué la noo koy xam nga lan laa bëgg nga xam man duma sa morom sa bàyyi laa waaye kii nag waaye lii du dëgg win win. papa. loo koy xamal la laa bëgg. waaw déglu ma rek nag. loo xamal la laa bëgg. waaw déglu ma kay xool kii mooy naar bi. ana ah, naar bi. dama ni fi nga doon fen fii ma naan la ndax am nga farak am nga fee nga naan yaa ngi ci naar bi kooku laay wax ki nga jël jox ko sa xol bi man bañu koo jox sa xol mais wax ma mooy kan. papa naar baa ngi nii kii mooy naar bi. <laughs> nii ma mel ni ku koy amul kii. Hmm, ku bëgg dërëm. naar man man ba ñu naar bi de yow. Ah, ko yow papa yow comprendre de man ba ñu ma naar bi de ma tap ma téere maam yàlla ba ñu naar bi mais yow laa bëgg sama doom nga. Hmm. leeralal ma li ngay wax. Ouais, ouais, J'arrive.. dama dama non non maa ngi ñëw nekkum xaar ma nekkum xaar ma tout de suite waaw d'accord. bébé il faut comprendre c'est normal et puis naaje. va. tu bien dormi. Mm-hmm. Mm. Mm. Mm-hmm. sûr. bu baax. ok euh, bi fàtte ko sama greffage bi événement baa ngi ñëw de. mu bàyyi ba ma yeewu sax. dama ko fanaanoo. Hmm. non non fàtte woon naa ko sax mais bon. Mm. tu sais ce qu'on va faire comme da maa bëggal te dama bëgg ci yow. dama ko jox ma saag ma jox la. man ah, dama la bëgg yow rek laay toog. <laughs> bi. d'accord allo Théo waaw waxal mm, sama gan bi mu xaar ma maa ngi ñëw tout de suite waaw wax ko booy ok non non j'arrive j'arrive bi saag bi nekk fa de foo ko teg. loolu mooy lan saag bi maa ko teg ci kaw taabul. gisuma koy foo ko tegoon. mais yow doo seet loo gis quoi sa si kaw taal bi laa ko teg. tey Serigne Guédé xamul dara dafay naxe uteg mbay ak numbe yoruñ dara di ko ñafe Amadou Kumba dañ leen a naax mbaalu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog. Oh. dugg si kay ku nekk ak li nga yaakaar Zeynab ma ngay jaay Aram ma ngay xuloo waay Anita day maraan ah yeah yeah xam du mën a jël koo xamante ne buy leb dalay neexal di neexal waaye bu fexee ba xam sa marché bi na Zeyna bëggoon noonu. non def. maa ngi nii. waa exil. xaw naa dee nag. looy wax nii fii daa changé. waa dafa changé nag war naa war a fa bay a dee. déedéet kay. valise bu may te léegi xam nga ni lu ma mënul mënatuma ko. dëgg la ma jaar fii ci bopp koñ bi ba nu biti bi. waa mën ko téel ma sama valise bi ma xam ne ma jël fii te ñëw. xale dinañ la ko jëlal waaw alhamdulilah waa exil. an sama waa ji. sa waa ji dafa génn. exil baa soriwul. déedéet soriwul. alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. gëj nga fi de. waa gëj fi nag xam nga boo nekk si liggéey boo xam te ñëpp dañ lay soxla doo doo doo bëri mën a bari tànk fépp daal mm-hmm. moo tax ma jékki-jékki daane xaar ma dem seet sama waay seeti sama bopp te léegi sax dangaa ngaa jëm mat <laughs> waaw loolu moom dëgg la baax na xama <laughs> baax na xam naa sonn nga da ciy baax da ciy baax de ci sama waay moo mën a tànn de xam ma lan la bon la de waaye ëbbët bokk doxin bi noonu la rafetee da ngay dox muy dox muy kii Ça, veut nous en fait quoi. non mais mënul nous quand même. ah non non non mais attends mais ça, nous nous pas comme ça. mais demal nga wool ma sëñ demal ma disparaître comme ça tu kër mais attends je rêve ou quoi. mais Sengede Guédé nekk seen gerte nekkul fi de gisuma ci kër gi. ngeen ci néegam. nekkul fi de. mais yow bu ma def nii yow tamit nag mais. maroon nga de xanaa. man kay dama ne xanaa du ngeen faral di mar yéen. lan hmm? man kay seen yëpp na ngeen kaa abrégé léegi bu nekkee fee nag dañuy jël poto ndaagu mag rek dëpp ko si ndaal li nga xam ne da ngay naan bala sa koolu attan rek nga daal di baax. waaw loolu daa am na bopp waaye léegi jamono dafa mm, changé. dëgg la dëgg la waaw. Mm-hmm, ah. ana Antonia Guéra moom. Antonia. ah kii ah, wax. ay yaa ngi bi ku bëri crédit. barki dem laaram setan ben mbikke gis na ci ben mbikke ba traverser man ko mom mom ben lan kay man may wax na bu ma ragal ah ni jay hmm? yaa yaangi dupe ko bari di de sama disquette fu ne sa disquette yi hmm. ngi ci bi ah waaw xanaa war na no màgg yi di bay ba gis len wa wo len bay ba gis mais mais mais ah, xam ne tooma yow tamit mais lan la. eh de dégg xam nga yaa ngi may tiital depuis sànq ba léegi. kon maa yóbbu na xaalis bi de bii itam gëmoo yàlla xanaa. non sant yàlla rek. sant yàlla rek sant yàlla. wuu. ma fontoo laa wax. xoma sa ñu nga fa andi xoma serigne gerte xoma serigne gede sama xaalis mu dugg di ngeen ko genné man mom dee ba pare. yang may xoj. ma day ray nga naan ma gi may fat yow la ci tek sama xaalis. may fat yow xaalis. ha ñoo nekk ni wa eh ngeen ñi kay romb nan léegi ay disket. ha ki moom ki moom mu ngi ci trente ket. noga ya nekk ni ma nekk ni papa gede Ha, yow mom say 55 cinq ket leer na ma nañ nijaay Gédé bi bàyyil tooñ nijaay Gédé. nijaay Gédé yaa ngi ko ay jànk ah, ay jànk nga yor de. waaw gis nga de ay jànk nga yor. léegi ñu sëy incha allah waaw fexeel nag sa waay am beneen nag. beneen pour lan. ah kë kër day am xale. muy toj kaas nga naan ko bàyyil kaas yi muy rocci courant bi nga naan ko bàyyil courant bi yooyu daa baax ci kër. ñaar ñii rek baax nañ ci kër gi ñii rek problème nañ. doo ko bàyyi mu ëmb laat la benn loolu la wàññi. ah bàyyil noonu. nijaay Gédé ëmb laat nag nijaay Gédé nag hmm. dem ci biir. doyal nga ah man kay baax na nag nijaay Gédé bàyyi ma rek ma liggéey jàppale sa waay. Diop moo teel a fer de <laughs> waaw ah, yooyu daa baax ñëpp tey Serigne Guédé xamul dara dafay naxe uteeg mbay ak numbe yoruñ dara di ko ñafe Amadou Kumba dañ leen a naax mbaalu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fay man de xale yi li ñu ci soosu kaani bii man xaw ma ci gis ak sa mayonnaise bii daa neex rek bi mooy ñaambaas mburu mi soosu kii du garaaw aas ah man man rek ci Boy booy yee dama naa la. ñëwati nga. booy barki dem lan laa la xool fii. numbe aal ma kuur gi ma riij ko kii. fay Eh, petit poussin. baal ma man amul benn problème man jàmm rek laa woote drapeau blanc laa yor échant bi. eh réglé booy violence moo fi amul booy. violence ci boppam moo fi amul wala boo ko indee fekk ko fi. eh bu ma laal waay booy. waaye bu ma booy booy du ma soxla. yow yow yow ki mooy grand as. yow xoolal eh numbe danga ma may jàmm ah. <laughs> du sama yoon ci gara kii sama client rek moom la ñëpp topp di ko wër fi mu toll numbe doo ma bàyyee grand as ak petit as <laughs> ah léegi grand la daa màgg yow xam nga ci grand moom grand lool ay mbir la woon rek mais ba ma jaar ci ruq ak siñ moo di génne borom ama rek génne ah moom la fo mu ma laal chèque blanc ma réew nii si tabaski bi dégg <laughs> turu jàmb la ñuy jël ci loolu noonu si parlance yooyu noonu si wax yooyu. déedéet ay mbir. kooku doo ko présenté la. Eh, eh, eh, waa la lu may seen nii. non loolu day dugga ah su ma foog loolu day ñëw ci man. non xaaral tuuti rek naa la wax ci toog gis na loolu noonu. defal ma si ak ñaar ñi ci war a bokk sama ñaari copains mi ñuy ñëw. Petit ak Papa ñu ngi ñëw. cër. ah waaw waaw. waa Ndiaye de. noppalu nga. waaw noppalu nga de. fii moom ñëw fi day xaw a métti. waaw orto yi sax moo métti dañ léegi kër kër kër kër sax tal léegi daanaka li pay. billaay Dakar sax léegi moo ci raw lépp changé. da nga fay gëj nag Ndiaye gi de. waaw nooy def. nooy def xam nga ne yow que dëkk ba góor gi moo fa nekkoon di ñaan sama maam Masata. Mm-hmm. Masata ginnaaw bu mu fa jógee jox ko sama waaju bu góor. Mm-hmm. mu jël xam-xam bi jox ma. léegi soxla bu nit am rek gëne gëne lay ya, xalaat ah waaye nijaay gi de yow nag da allah da ngaa baax da ngaa baax da ngaa laa biir macha allah doon tam du mhm. eh, mais allah nit ku baax nga ma ko nit ku baax nijaay gi anto oh aram na nga def bari si jam. maa ngi sant bu baax a bien ni ngeen def kañ fi ah maa ngi la doon laaj sax mbaa sonnoo ci yoon daa tuuti rek ay gi naa gis bu baax waaw ah noppale ko bu baax asalaamaaleykum aleykum salaam sa yaay jàmbaar yi jàmbaar léegi léegi jàmbaar mama Touré man li mburu sama waa jaa ngi nii jàmbaar léegi léegi jàmbaar jàmbaar yaa jëri koy wóolu Touré man li mburu sama waa jaa ngi nii samba mbayaat eh. ne ñu fee yam cër ba jëkka nangu jël sàmm yam ture man di mbóori fa nga man foofa nga jaar tey sàmba mayam waaye ture man di mbóori Diop Diop bee sedd ah. ndax man xam naa lii boo ko daan bàq ah. am na fu ma daa séentu waaye léegi daa muy ma wuy ci moo tax daal ma ma foofu lu nekk sa kol gi yo lu yo yóbbante yo yóbbante yo liggéey yo mbaa toppatoo ngeen waaw wow toppatoo toppatoo nan ma bu baax a wax ba noo def sant kamu ada ne bu eh. nah, ma ñëwee Dakar sañu maa dal fenn fu dul sab kër ndax maa yi danoo yàgg hmm. koo duggoon ndoog néegu góor hmm. ngeen jàngandoo daara ah. nekkandoo si taaxuraan gi man ma dem uti xam-xam hmm. di ñaanalaate moom mu nekk si taaxuraan gi xamul eh. lu yàgg dëkk la Olof Njaay lu mu léeb dëgg la as mi boo ko xoolee xam ne ku am jom la te sama waxu bërki dem bi indi na résultat yi foofu nga leen di ñaax ndax nuy liggéey. te dama koy sourire rek te xamuma moo tax waxati waxati la def man xam naa mais sama nijaay mi daa raas jàmm tamit yóbbu ko fii jàmm rek a fi. waaye yow as ma ak yow dañuy déggoo dañuy déggoo li xale yi naan yow la ñu topp mbaar mi désormais yow lay topp waa léegi booy as li nga jox nii pour ñëpp xanaa sa baay mbaay mii war na cee mën a laal. non yow mar mi nga fi yow mar mi nga ci kër gi loolu amul problème yi fi nga bokk. waa dëgg la waaye marchandise yi moo cher xam nga fii boo jëndul doo mën a lekk. ma doon nokkas rek xam nga rek. waaye ni ngay nokkas. waaw waaw jéggiwul. maamam def na lu ne. 124 jinne xaw ma 123. 125 loolu nii ñu wàññi. maam ji lu ne def na ko jinne yooyu. Hmm? xam njanaaw xam ngeen njana njana mooy <laughs> yooyu di ndaw ak picc yu ñuul yooyu moo njëkk a mbéj dem mbéj ah, ah, naa ko génn baal jàmm eh, am na fit masha allah ñi yàlla di li na may de te yooyu jamono dëgg yàlla maamam lu ne def na ko mm. Mm. booba nag maamam tabarkàlla mm-hmm. naam mbaa toppatoo nañ la bu baax rek. xam nga tamit yii mu ma la baax la. Mhm. ndax bu ma ñëw di wax nii laa mel. mën mhm. ngeen kaa bañ a gëm waaye moom di seen borom kër. ñoo wax leen sama kéemtaan. day tax ngeen xam ku ngeen ku leen gan si mooy kan. <laughs> waaw maam moom jàmbaar la de maam. maam moom def na lu ne xiif ma tudd suuf def ko buraaki ne leen añ leen. nga ne man buraaki. Ah? ah. maamam laa wax def na lu ne. kiraama bu ne maamam def na ko. ok barke de yëpp ko buraake hmm? maa moom ci gën a tuuti. Hmm? yaa ngi ci jàmm rek. waaw waaw. maa du ko Mali nga war a jëm wala Koupentoune wala. yàlla daa dogal. Uh-huh. ba mu ñëwee Dakar yàgg naa fi nag. Uh-huh. waaye maa ngi woon booru Almadi. Uh-huh. man de ba ma toogee de ba ki di waaju ñëw. Uh-huh. ma ne ren moom ki bi xalaatuma ko defee fen lu dul kër Diop. sa kër nga ñëw. tax bëgg a amal tabaski jàmm waaw. bëgg sa kër nga ñëw ñëw nga fi nga war a ñëw nag. yow nag léeg-léeg dama lay mere de. Ah. gis nga almadi. Hmm. dañuy rey xar. Hmm. jël ba bi sànni jël ñeenti yeel yu tànk yi sànni mbaq yeeg yëpp ñu def ci mbuus teg ñoom duñ ko lekk. maanaam tey man boo fa jullee woon. Ah. këroo kër yëpp bopp yi lay jël ak xar yeeg yëpp fooyo fa nga toogoon pour julli nag foofaa baax. parce que yi mu wax nag moo ma jëlee at bari xam nga yeel yooyu noonu mu sànneeg bopp moo gën a baax nit ndax yooyu ngay mën di suppi. faj tooy ah faj tooy gi ak tun mm. toogaay gi. day metti ne comme Diop moom daa fonk yooyu. Mm. këram laa jëm nga xam bu ñu tabaskee ba si a suba gi dina la mën a jox baa mu jox ko aram mi ñu suppal ma supp bu baax. Mm. waaw xam nga man daanaka waa alma di lay liggéeyal. maanaam seen rythme laay dox fa ñuy sànni ay bopp falaay sànni bopp fa ñuy sànni ay yeel falaay sànni yeel hmm. ndax ministre ba doon faa wax lu bari si si awa almadi waaw waa ren teel bopp ki ren bopp bu mu dem ren bopp bi bu mu dem ah, waaw rek bopp mi na fi des waaw waaw man daal xam daal lañ laa sul lekk hmm. neefere gi te der gi sax dama koy yittewoo daan ko der gi boo ko xoramee nii bàyyi ko ba mu wow koŋ ko mën a def ab si aada di ko jullee waaye neefere gi daal lool mun naa dem si kam ah neefere moom xam nga ne loolu moom kenn du ko ah non sax maamam dëgg dëgg daan lekk neefere moom laa moom mën na koo bañ a lekk mais maamam man ci waxtaan da daan lekk neefere waaw waaw moom maamam ñoo daan lekkoon loolu rek man ah, ñoo defoon loolu lépp kii lu sama def rek maamam def na ko kon sa maam di doon lekk neefe. waaw man kay. waaw. Jofal tabaski jofal. oowee oowee nogay jàpp na naar bi. ñu toll ma jas neer xalaatu ko. nañ nañ def basin russe bi. André. quitte pas bébé. je te rappelle. mu. lan laa ko xool. waxuma la won buma waxat yaay. defal naa suba batay xawma ci lo nek mais boy dugg sama ne mais nga taguma par pour lam ngay dugg sama ne te tàgguwoo ma laa la wax. buma waxat yaay la la wax. wa bayima tek lan ngay def sama nekk. wa dindi poñe bi su ko dindiwul. yaay dindi ya, poñe bi su ko dindiwul. yaay togal ta nga nek mak dama la rus nak torop. Eh, waay. may wax mu te moom daa bari doole ndekete def ne patak moom ba pare dëggaale ma kii bandi la ah <laughs> maa ngi nii ci garab bi di féexlu maa ngi tew ma fenn ma ne ko sama géer bu xattaaral baa ngi nii lii la fa njaay di wax de ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fa ngay toogee na moon naa sa woote de maa la ko wax programme bi kat ah waaw yow de boo wootee programme dañ ciy sawar samedi ah borom ñetti maamu Samba yaa ngoog <laughs> programme bi ci sama loxo ma def ko na mako ko defé ma la ko wax dégg na xalé nan man <laughs> papa Mbaye yow lañuy top mané ko bu len ma top ay doon cher bo la ma topé dama leni réral <laughs> yoy ay terme yu bees la ba samedi jere jef jere jef cey sama géer gi la ilaha illallah lu way doon jaay leg mu lamb liggey bi moo ko ko numbe

man xam nga man la man la géej ñi di topp. yow la ñuy topp de. te ma topp ma leen. mbaay loo defa gën loo deful. Ah, rakk ji lu muy def. waaye jom mi woo. jom. ñu jaay gede. waaw kay waaye wu. waaye wu bàyyi gede moom moom la mooy problème am mu ñëw si kër gi naan 30 ticket. 55 ticket. léegi sax désormais à partir d'aujourd'hui 55 ticket laa lay woo jeex na eh, tax eh, eh, moo wee 55 ticket de ah nga woo ma chéri naar bi nag moom ko gën nag chéri naar bi yow naar bi tool na la foofu génn ci li nga ne naar bi daf gis nga yaag naar bi fa ngeen amu fa yow naa samay soxla ma aw ma temps bàyyi mag naar bi dama la bàyyi mag moom bi rek dama temps yëpp ci ma jaaxal programme yi nga xam ne dama koo engagé jamono yi saa yu ma génne ñu ne ma papa Mbaye yow lay topp. da ngaa xew. wala ñu may toppee. waaw boo xewee dañ lay topp moom la xale wax ci tiktok bi xew. allo ma ci xam. lu tax ma topp la nii rek bañ la tànqali koo gi. waaw yow mën koo xam mais man léeg-léeg mën naa xew te du ma koo xam. waaw da ngaa yëgalul xew sa yaram. jërëjëf xew boo ko yëgalul sa yaram dara du la saf. kon jërëjëf li yàlla daal. jërëjëf. waaye man bi may dugg si. Hmm. daa mel ne damaa tëseeg seen waa ji. kooku kumu. Gédé. non topp ma ko kooku ni ma def. nam laa def. ñoo ngi dem tënk ñoo ngi dem tënk ñoo ngi dem tënk. waaw. mais yow kii du yaa ngi koy tànk ba tey de. man ah man xanaa xamoon ni gis nga bu ma xasee boole yi ba yeew. waaw. <laughs> man de bële na mu mën fecc nag kenn du ah kenn da da xanaa ni ñaari soxna yi la sax.

boxing day football tey noppalu suba football tey noppalu suba. waaye nag mbaaya. waaw ku goree ngi nii. <laughs> waaw waaye yow it kenn demul nga des. jërëjëf ndax bu la neexoon nga am sa géer bu baax nga kàcceeg ñu ci maag moom. xalaatu waaye da nga ne kaa la ñu àndandoo seeti sama géer. Mm-hmm. kon kenn gën laa gore. waaw. Gédé kontaan naa. Mm-hmm. wax ji rafet na ku neex a ga nga. waaye dafa fekk ni. Mm-hmm. lu jiit ci xol dina fa yàgg. ndax maag Diop mii. danoo yàgg on a fait toutes les guerres ensemble. kon bu ma sama guer gu bax mm-hmm. warna and ak yeen dal le fay dugal. Mm-hmm. ndax maa kii samedi ak dimanche la bis doxul ci diggante. mon ma don altiné waaw waaw nga ñëw altine. <laughs> ndeysaan. comme nak ni la démé uh-huh. ah dugg wal alhamdullilah mm. waaw fi toj na. ah <laughs> man de amatu ma sax lu ma wax. ci <laughs> toj na li ma wax yëpp wax. lay dëgg da nga bax rek wax di rafet na. nga bax baax kontaan naa. li de la def ak man. ah fukki junni. te fii amuñu fukki waxtu ak juróom am fukki junni ma ne man man mbaay samay géer ah. du nu def ak man sax juróom minute yaa ilaah taaja boon ñu ne ma wala yi ma dem sama yoon yow waay te kaw li jeex na te kat da koo toj ba mu sew eh, mi ngi neenu noom xam na nun ni géer yi may xam na nu mhm. xaalis bi dafa war a tas na marto bi daal mi ngi acca <laughs> euh, mbaay waaw comme rafet na ba tool fii waaw bul yàq rafet gi comme Diop mooy sunu kilifa ah. jox mu séddale teel waay waay ay waay ay teel teel ah. teel teel teel kilifa boo ànd ak moom da nga koy wane yaay kilifa gi ay waay lu rafet du ñaaw ma am lu ma ci de ah muy ma ni ah. daa amul ndig waaye ne nit ah, ah. Eh, eh. ku ko daa amul baas <laughs> la ilaha dindil ki boobu ñu épinglé noonu man lii rek laa bañ. mës naa ku koy dindi bañ bee wat. waaw dafa dangereux lii. as doo koy épinglé da ngay génn rek joxe noonu distribution bi gaaw. dinaa yaaw jaal lii ko jaal de. ku dul moom sax lii ko dindi ay bañam. ah ay waay sama xol bi sedd na. xaalis mel noonu. ko bëgg xaalis moo mel noonu. léegi nag comme daanaka fukki junni la. fukki junni fukki junni fois. fois trois man nag calcul leen ma dàq l'école. léegi yow. divisé par trois léegi yow. am bi naa la jox bii yi nga nuuroo ndax daanaka yi yéen a nuuroo waaw. ànd <laughs> tànn yéen ñaar daanaka amul ànd tànn ah. ndax moom mi mbaay. Mhm. danoo yàgg nag. Ah, comme nag comme da ngaa fekke nag. Ah. na la ci fekke boole. li Youssou Ndour naa yéen laa yiwoo. fekke ma ci boole waaw yow fekke la ci boole. tàccu yi nag Diop. waaw waaw dégg moom. moo yoo sax ta tàccu da koy rek léegi mbaay jox. mbaay naa ko jox fe mu jël ma jël fe kon an sa àq magel kon sa àq magel mooy lan. déedéet déedéet séddale ji dañ siy jëmal sa àq magel te yow déggoo wooy bu nga doon wooy dégg nga amee yu nga doon dégg moom baay mii la. Eh. ay yow contre dégg si biir naan kii kii contre temps mbaay nekkoon ci biir moo tax mënu ma ko wax. waaye yow kii la. eh yow sama jàmm. yow man nga naan contre man. yaa ko doon def contre temps. man na ko gu toll ni man dinaa génn contre temps yow. da ngaa riir. mais demee yaa doon def ay contre temps Diop dina décanté waaw. mais yow nga ne ma waaxu jàll. waaw ah. bé bé defal ndànk ah, waaw. moom mii non ki doon réer kan la. moom mi yow ku doon moom lu. Eh, eh, moom eh. fenn la ma noq la de. ma bàyyi ko noq mag de. yow de ah. moom mii daa mel ni góor la woon de. moom mii. moo nam génn compte temps yi nga xëy delloo si waat si temps. piis naa ko ba sonn. temps bo genn bu genn ko contre bi ma ne Massa Manda nga am tabi ci séeréer sa naan loo xew mané wo yi nañ len taxaw baba fa yooyu yaay imbécile foofa da nga ne mbay waxul ma ñew da nga naan ma xuus jàll yow kon ya don dir say ñett am am say ñett ya don dir yow nak wax nga point bu gën yow yow dina la yegal ben mbir dama ne sama digënté yow samedi ak dimanche mo mu duggal ci lundi waaw bo lew mako ma altine yow nak bo ma ciul mën na la daaju mbëkk nga toog déedéet non sama dakantal de déedéet yow sot la ñu soñu def na ko ñu dara ndax màkk yi ñoo bokk fi nit ñi yow Guède xaaral ma pare ci kii yow lii yow itam mu ngi noonu su ko defee ma jël lii ah, kon moom moo def nga séddalee rafet fees da ngaa waroon jël juróom téeméer jox ma ah waaw yow la jox ah yow boo ma waxaatee lii di nga ñam de dégg nga bu baax eh kii la ma baax xanaa du may seen kilifa boo bàyyi ba ma ñus ko au sukk di nga xam ne mënoo mbëkk léegi nag leen rek laa soxla hmm. pour ngeen gunge ba hmm. su ma nee doxal doxal ngeen ni ma doxal fii rek laa soxla waaw yaa ngi dégg yow non noonu dëjë doxal laa wax doxal doxal doxal doxal dinaa la yëgal benn mbir jóob man doxuma marche kinaaru ma hmm. tëbu ma naawu ma yaa ngi def lu dangereux nag bu fekkee ni seytaane bii mooy dugg sama digganteeg yow ah. ba tax nga jox ma lii ah. yow man ak yow man doxuma dox leen seen dox. nga bàyyi ma ma def sama yoon dox trois ba xam doo dox yow. ay ah, yow nañu def beneen junni bi laay nangu. def doxal doxal. moo doxal doxal moo. Diop doxal. waaw ah. ñu sol waaye eh, da nga koy foofa ngay teg doxal gi yow. Ah, doxal gi fu muy ne. boo fi ma daanee léegi nag sa doxal ñëw. waaw doxal doxal. doxal doxal doxal. waaye yow kay yow imbécile yow de kay yaa doon réer. temps yàlla day àtt ñu Diop mi sa xanaa xamoo moom ab aaram léegi dañ koy naataamle digg la doxul doxul nan doxul kee naan ko doxal maanaam xamuñu fu ñu jëm àq gi ngeen lekk la man mbaay man la xale yi di topp yéen schéma bi ngeen jël baaxul man arrière arrière arrière tournel njaabal njaabal njaabal njaabal xanaa xamoo maag Diop Fall sunu ànd gi nuy ànd gede neexu ko ah danay maslaa nii rek waaye maag Diop Fall neexootuñu fu mu toll nii luy loolu ah waaw tamit fekk ñaar ñuy ànd mbaay ak Diop Fall rek mu bëgg koo yàq mais sa digganteeg Diop Fall ku ko nar a yàq est-ce xam na li mu nar a yàq ah kooku dafa xamul Kajoor ak Bawol da la nar a féewal ah maag Diop de mburu am soow la moom mu a yëbar ñett di këf di siif jël mburu mi ne copeet daal di dem waaye xamul ni man màggatum koobalaa maay ruus tumburu ma te maa ngi ca biir. gis nga bu yàlla boole ñaari nit ñu neex. nga mhm. eh, xam da am chance. te chance dafay gën licence. baraka moo baax ci liggéey. dégg nga waaw noo xamee la non bul jooy. jooyu ma de. wax sa waxi ba pare di jooy. Oh. nga xam ne noo ko xamee. jooyu ma gis nga lii nga def. bu ñu ko doon def kenn du jaxase kenn ak kenn. jooyu ma de. yaa jóob rek. da ngay fomp noonu. jóob maa ngi ci biir mbaar. Mbaye ak Diop Fall rek ngeen ñuy topp ñu leen di réer rek ay bàyyi laa ay jooy laa jël Pouteng Mbaye ak Numbe yoruñ dara di ko ñafe Amadou Kumba dañ leen a nax mbaalu ki ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog owe owe ah. <laughs> waa papa ah hmm. ab tey dangaa matinaalu de waaw loolu moom maa ko def tey. ah baax na. xam nga dëkk bi daa toj. lu na ngay lijjanti yëf yi ne boole boole Touré Mandi Mbori mi moom sax sax jàmbaar la baax na. Mhm. waaye fi mu ñëwee moo xat ba nga xamante ni nii la yàlla xam na doy na daal. dëkk bi loo ci wax rek doyul ak crise mondiale bi ci dëkk bi. Hmm. métti na daal métti na de léegi nag yow da ngay sama doom di sama xarit xoolal noo def ak man si naar bi. wa xam naa bi si la. Ah, yow tam ah, yow xam nga naar bi yaa ko poñe. papa yow. <laughs> gaawal gaawal. papa nag li ci mën na joxe chaque jour nag. gaawal rek yow laa am di. dama faale doom ju góor. gaawal man yow laa gëm. faale wu ma doom ju góor. def ko mu may baabati de. papa man si yi dawul sama yaram sax. eh. waay. cinq junni. Ah, papa na nga ko baax na xaaral ma tiire ko ah, man dama ko raw nag waaye wi ma nag dolli ma ci junni nag yow it rek rek <laughs> dolli rek. yaay sama doo yaay sama xarit. <laughs> yow yow yow laa am. ma dem na. fi ne nii moom damaa mel ni ku fekkee jamonoy firaw na <laughs> firaw na la woon doom ju góor ju juddu nan ko rey moom laa àndal noonu bàyyi jigéen ñi rek.

lii lañ naan sàccum ndënd yomb na waaye foo ko tëggee jafe ca ajaaxu jëlaa jëm da koy jënd da koy bëgg waaye ajaaxu jë moom moom moom luy dund sawaru ci moom nanga nga faatu yàllaaw rek mu mu doog a génneem bi lu bon rek la bëgg ajaa suufi laa koy jaay garmi baa ngoog kooka nga naan ko lii laa wax mu ne la lee lay jar fay la ngay kontaan xamoo koy dajeeg ab nettalikat dama mun seet damay mel ni ku boot doom dafay naxe uteeg mbay ak numbe yoruñ dara di ko ñafe amado kumba dañ leen a nax mbaadu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor rek a toog waaye ñun ñii danoo dawa dawa daw bërki dem sama benn talon dàll bi ni ma ko joxe ca ca bopp jàkka ji naa la wax lii léegi nag ginnaaw tabaski oblige yéeral. ah lu may gis ni fii laa génn léegi nag Chawam Ndiaye fi mu ne nii loxo du ko laal yéeral nii rek man xam naa ni la waxati. ah ba bul bés bul def dara de. yow nag fi ngay fël la garaaw. maa la wax loolu de xool. barke rasurulaay. xool xool bi nga génn nii. xoolal bi tax xamal lu tax mu neex da ngay jël rek sol maanaam da dem ci tailleur bi mu ne buruj baraj. xoolal bi foo jëlee tissu yi. ma dëkk ci dëkk bi la xoolal bi kii la ñuy doomu caagiri. ah te ah, yow itam. waaye Diop tissu foo mu jógee. lii xoolal dëkk bi Dubaay fi ne nii kii moo fay topp. Hmm? topp boo déggee topp kii Dubaay fi mu ne kii bi premier tirage bi xaajul dañ ko génn rek mu ne fula léegi nag sama benn xarit bu riche. Mhm. jox ma ko ni ma seetal ma kan ma ko mën a jënd léegi léegi damaa yàkkamti mu ne ma nag boo koy jaay nanga ko jaay garmi baadoo la xamul valeur am looy jaayati si yéen xam nga seen boobu ay cinq mètres six mètres yooyu la benn bu ci ne deux cent cinquante mille ñetti yow day taxaw sept cent cinquante cëm ko mën a ku koy jënd du benn fayal fayal ma daw fayal sa xuutal ah mooy yow itam yi da nga koy gis feneen te dama laa xam nag. dama laa xam de dama xam ne yow. may ma ma ñëw. cim. Hmm. soo ko waxee may ko waxee di ci ko waxul dina ko def. ak kay jàmbaar ndaw si fi mu ne nii di atum na ma fay ba tegal ma ci. te mu ko yëru rek wàññil ko ci ay comme cent cinquante bu ci ma teg ma tegul ko ci kii fukk juróom. هذا سكيمو مو ما كيف يفيد ديري انكلو كويدف day teg benn tànk balaa tegaat ñëw libéré ma ma demee ma laal sama 750 tànk ma ci damay def comme beneen almet boo sàccee almet wala nga for almet da nga ces benn beneen sa almet. Ah, baal ma de damaa yàgg. ah oui nag yow itam. sama doom bi euh, sama chéquier laa fàtte ci oto bi mais sa naa sama doom bi mi ngi ñëw. Hmm. waaw mi ngi ci yoon bi mi ngi ñëw. amul problème waaw mi ngi ñëw. Hmm. yàlla jël see guma. mënoo bàyyi li ngay wax xanaa gëmatoo yàlla. lu muy xaar ci man. bàyyi li ngay def waaye yow tamit nag depuis suba ba léegi lekkoo. yow mënuma bàyyi wax waxi lekk bàyyi di ma wax waxi lekk fan nga jëm kaay. kay xam nga waa ji ñaata la lekk sama xaalis man xam nga lu mu jël ci man ah bàyyi di ma ko lekk ci biti génnal balaa ma lay lekk xaw ma sëriñ gede xaw ma sëriñ gerte yéen ñépp lay boxam yooyu salaamaaleykum. waaleykum salaam. noo def. waaw. Adja Sofi loxo bii nii dafa ne ni kii bi ni mu def comme. da ngaa karam. nagu fi mu fii moo moo. sa si dara newu ci. yow xanaa dañu am la sabaaja sabaaja na leer wala sama. kii lu muy def ni xanaa a xamante. xamena ko kay sama place tailleur bi moom moom moo fa nekkon jour bobu yam na talon mesure. da nga xam kii. da eh, nga rusata la. dama ni ndax da nga xam kii. kan ki ana mu. mi ngi ni to la nga def sama loxo bi do fi ni lambal fi ah man kay làmbuma dara. Eh, da nga rusata la looy def ni ko tuuti kay lu muy def ni lii Dengar dama dem ci wanag bi te ñew da ngaa yor kii. si de la fi indi di ko jaay. ni de lan ni ngi ni de yi de la fi indi di mako ko jaay tata tissu yi mooy yi nga ma jaay yagul dara ha ah, naka nga sañ ko wax ah, soxna Adja tuba bi yim limu defal dafa bari yow yaaye nak di wax di bi, ak di deur man nak man na len ko baye ak yalla man na len ko baye ak yalla yep man na len ko tisi yi tisi yi sama logo moo ci nekk. logo bi fan la ne. xamoo logo bi. yow bu ñu la waxee waxal looy wax kon yow am nga loo war a wax ak man jël samay tissu sàcc ko may nga indi ko fi may ngay da ngay wax yoo xam la moo la nga ni miig te nga ni mott si biti sa sikkim bii nii yow waroon ngaa ruus di sàcc ay bagages ñëw di ko jaayaat. Hmm. ah Diop nag tey bett nga ma sa dugg bee génn bii fogoon naa ni sàcc bokk ci. rawatina nak ngay dem di jël li jambour di ñew di mako jaay waa yow sama kanam gi dang nga gis lenn rek lu ñak fayda yow fi ne ni wax waratu la xam nga lu la war. Mhm. di top sama baram bi. mi ngi nii. jugal top sama baram bi. ni la jëm waaw ni jógal jógal jógal top sama baram bi jógal jógal jógal jógal te dafa am looy xaar wala dafa am looy xool. jógal jógal jógal doo sax doo sama baaraam. magum jëmm bu doy na yow. na njëkk tey da mujj tey. jógal jógal génnal. ma la gisee laa xam ne ak faaw kooba nga. jàpp na naar bi xaar indeegul xaar bi. man xaw ma dama war a yóbbu ci sama bopp sama bopp ci muulkat yi ñu tàpp ma waaw ñu naan ma ñu naan ma ma man dama war a xaru xaw ma dama war a yeew sama bopp sama gàcce gi man man lii la ilaha illallah hmm. Adja Soufi moom moom moom moom tisi man poisson avril la ma def tey daanu naa tey daanu naa lii moom rey sans bopp rek laa waroon def ay waay tey am naa lu ma naqari waay la ilaha illallah hmm? tey nag nag tey tey nag laa weeru ndekitu yu ay sàcc ak ay fen nii la nag ay fen a ngoog ay sàcc a madame naka mu. si jàmm. yaa ngi cool. yaa laa jëm si woon nii sax. atelier ah. ça va. ça va bien. xoolal sama tissu ma ko bëggoon a changé. tissu yi. waaw dama ko bëggoon changé parce que xam nga rek tabax bi presque du ñu am benn jot. dañuy nekk si lakk bi yooyu noonu. moo tax ma bëggoon ko changé pour mën na jox beneen tissu boo xam ne moo gën a yem. mais tissu yi dagg naa ko de. yan nga dagg. dagg naa ko tissu yi ma jox ko. yow tissu yi ma yi ma la joxoon mu ngi nii tissu yaa ngi nii keebaa Kéba yow kañ nga mel nii gis nga sa paa boobu nor moom moo doon bëgg a jaay sama tante bi tissu yi te sama tante boobu moo ma jaayoon tissu yi. jaay Diop bi dafa tuuti moo tax looy def war nga kaa xoolaat baax balaa nga koy def ndax ku la waxoon yi dinaa si jotaat loolu war na laa jaaxal. nogay jàpp na naar bi nogay jàpp na naar bi uh-huh. jofal indegul xaar bi kim ali baba kuma naar lekk benn ñaar waa ma ne lu wànq di dox noor lu xew kan ngay waxal yow xanaa loolu lu mu <laughs> de loolu samay problème la ah. sa situation la. yow lu xew fo jëm ni yow. ngent la jëm fi rek programme ru islam sama guer gu bax papa jang ah déet ah maanaam mooy sa liggéey bi da nga fay defar ay ton ak ay. ye déet. man de fay ndambe ki ton ak i mayonnaise damay dugg ne der biram borom yalla ne ciow la jeex ma ñibbi. <laughs> mbay yow yow xam nga mbay nak man fimni ni lima nii ni rek doyna na. Ah. mënu ma ci tegg leneen. yow ñoo sama kër barki dembo ndjay waaw. ni ma léegi génn nga ci yëfu ngéwal ya nga doon def yëpp léegi nag yaa nga ca wetu soxna sa mm-hmm. di defar ay ton ak ay xawma ay lan yow sa ndégg da laa réer Sénégal la ñu ne booy dem dakaar tàggool Kaolack la ma la waxoon plan la mm-hmm. man sama soxna see saa yu xëyee ma jàll ci ginnaawam di liggéey mm-hmm. waaye nag programme yi bañ naa ba sonn waaye Cees man lañu wóolu mbaay man lañ koy jox nee na man la ñuy topp bañ naa ba sonn waaye man la ñuy topp lu ma ci man gis nga yow xam nga laa la yëgal. waaw sama naqar doo ko yokk. ah man doo ma fekk ma am benn obstacle boo xamante ni man wóor na ma ne sama adduna yàqu na nga ma ciy tegal wax yi nga xam ne xaw ma lu muy nurool waa job obstacle lan nga am. loolu c' est entre moi c' est entre moi et lui sa yoon new ci samay histoire mais yaa taxaw carrément ni ma lii dama ko bàyyi ci adduna kon nag man lii xaw ma ay fen la xaw ma lu mu doon ci àdduna. Diop jéem a la góorgóorlu li nga yor attanoo ko. benn soxna nga yor charge la dafa métti nga teg ci beneen muy ñaari charge dafa métti nga yor leneen loo ca laax sa mbëggum jigéen ji arrêté ko te lii ngay def nii jóob jëmul kër dañoo jëm ci tabaski te réew mi dafa metti nu ñuy def ba am xar loolu la ñuy lijjanti. fi mu ne nii man yëf yi damaa xamatul sax lu muy nuru. ah man da xam naa lu muy nuru. man affaire tabaski googu ngay wax nii fi mu ne nii. waaw foofa foofa foofa la problème bi ne. man man tey damaa am problème mu <laughs> grain de guerre laa am tey. jugal ci sa bop da nga def dara man awma ma grain de guerre guerre de ngi ni di dem man ta dama koy toji hmm? baara mbay ju tok la fa indi rob gi dam ro bis da dadak ron gi da ki takki ro takki takki ro takki takki ro takki ki te dara gi jeur uy ma ma nga coyoon way ni lay doxé defani eh, mbay nga ni xanaa ding ma yóbbaale nak yow fan ci cha papa jeng ah kay taxaw noonu da ngay wëlbatiku ni wëlbatikuwul. Mhm. tàllalal tàllalal ni mhm. soo yoonu kër tàllalal. man nga naan tàllal waaw tàllalal ba dee tàllalal boo demee ba nee xam nga potu laam nga jàdd foofu mooy soo yoonu kër. temps yi maa xew nee naa la man la ñuy topp borom may neex yi borom tàgg yu neex yi may mbaay di mbaay mbaay vrai tad ki jàppax gidd vrai gidda giddaas giddad taas mbax vrai ca caaye bàyyi foofu nga koy daaneel comme dama ànd ak yow maa ngi lay saaga saaga yu mel dara dafay naxe uteeg mbay ak numbe yoruñ dara di ko ñafe amado kumba dañ leen a nax mbaadu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog owe owe nogay jàpp na naa ndéeg baax na tegal noonu doo jug lekk dara yow boobu léegi nangoo lekk. si fi mu nekk nii sama biir mënu maa jàll dara lu war lekk du jàll tegal noonu rek après naa ko lekk. waaw wuyu xool ma yow tamit j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. lala géré nañ koo jàpp. li moo dàq bu gédel. lala. yow kontaanoo. ah kontaan dégg naa li nga wax yow kontaanoo yow mi fi mu nekk nii kumba man mënumaa lekk mënumaa naan mënumaa kontaan sama àdduna fi mu nekk dafa yàqu man lépp lu ma dund rek bonus la. yow gëmatoo yàlla de. xam nga lan la yaa ngi may bëgg soof nag boobu ba léegi maa ngi neexal lan mooy sa problème ah nee nga doolee deewal. deol man do ma téré ndéki do ma téré agn do ma téré bir wosin yow kuma kan ngay waxal yow. sama jam eh kuma eh yow kuma man ngay wax li yow yow da nga fuuy sax da nga fuuy da nga wone ni ah waaw sa affaire grossesse ci ñëw na man faalé mo na man. wax nga indi fi sa ben charlatan mu ñew yak sama kër gi ah jël sama million yop ko sama xaalis bi yop yop ko yak sama aduna man faalé mo na man. bu fekkoon heure bi nga naan ñu bàyyi la nga naan Amadou Amadou gesu ma wuyu ma wuy sama ndey di nga xam nooy def voilà biir nag ëmbal wasin sama yoon néew ci yaa xam. saa bu ma tegee samay daal ñu sol seen tànk yu nga leeg sama topp tànk yi damaa mën a bokk ak ñoom daal xanaa bu defarkatu daal yi ñëwee sax ma woo ko mu defaral ma. waaye lii tooñ la am léegi bu nekkee tooñ may ma damay jàll léegi su la mayul kusal li ma damay jàll ma la mayul nga jàll léegi su la mayul te yow xam nga lu ma lay wax yaay damaa bëgg nga bàyyi ma bàyyi di ma wut yaay mbaar xam nga ne tey la sa bés mbaar xam nga ne yaay bi di ko bàyyi sa loxo su ma ko bàyyiwul yaay sa loxo su ma bàyyiwul sama loxo. gis nga yow ma li ma la sutee. ko léegi nag eh après yow sut ma sut ma tax na nga mën ma. yow sut ma tax na nga mën ma bëgg jàmm. léegi su ma bëggul jàmm. Hmm. su ma su ma dindiwul. Hmm, hmm. su ma dindiwul. du duul ah, duul ah, eh. Eh, yow. na dindi ba pare na bàyyi. bàyyil poñ bi. na bàyyi ba pare. yow la ma a ñaan bàyyil. bàyyil. kon man mën nga mënoo maa ñaan man. nono mañam waaw kay ajëleen ma lan nag baa may ñaan ana fi nga Japon. Japon. Japon, fi nga Japon. lan fi nga Japon, Japon. ko Japon, Japon, jàppal yow lan jàppal fi nga jàppoon na dëgg rayante leen waaw ci dëgg-dëgg neexul ba neexul wante kumba wax na dëgg xaalis bi deug la dem na mais man mako liggey mom moom liggéeyuma te nak aduna jeexul vraiment warna soppi doxalin def ko ngir man sama jabar ak sama dom gi nga xam ñogul yalla baxna na xam naa ni may def nogay jàpp na naar bi nogay jàpp na way. bi xaar sa loxo bi boobu ba léegi maa ngi nan la job jox ma sa loxo ma ma ma la sama xam-xam bi bo si ñuul kan mo si jëriñ. wa am am. le 15 rek la soxla. le 15 bi passé. lan laa añee. Euh, Diop nekkuma say palaa. si sa dund la nek mayuma mu ma liggéeyu ay le 15 loolu ci dund la di. ah ni tangay naaj bi mo tang faaw ma xaar tuuti ba jant bi dugg lu may xool ma mën ko gis ndax fu mu toll ni mënuma ko xamé ndax sa lox bi mo leer sha allah waaw way fan mo tang way borom fi ñu ne la ne genné fi xam nga lu ma bëgg xam ah. yow fan nga nekkon ci aduna ba nan fi dafa tang fee mo sedd ton nu bokk yow bu yow aduna bu nu nekk ben monde bu nu nekk ben ceer ben ben dëkk ya nga joom de mun na bokk fu ne way way mo do don ben maa ngi woon fu baqane. maa ngi woon almadi. almadi bokkul ci Sénégal. waaye du bokk la fii ñu ne. ndax almadi géej gee ma wër. peex mu fi nekk lay jóge ministre bu nekk recevoir naa ko foofu. almadi gi ci Portugal lay wax wala almadi gi ci fan. almadi gi ci Ndakaaru Ndiaye moom bii laay wax boo paasee aéroport bi dugg nga almadi. foofu nga doon recevoir di def sama liggéey. di liste di def samay ñaan client yi di ma fekk.

bii daal nekk sama xel. uul ak konkorom. uul ak konkorom wax nga lu yàgg xam nga loolu kañ laa ko gëj a gis temps yi may nekk daal laa gëj a gis uul ak konkorom loolu yàgg na loolu mi ngi am. moom laa bëgg mu nekk sama xel. baax na dinaa la ko wutal. tey nga ma koy wutal de. damay dem dugg ci biir àll bi wittal la ko ñëw andi jox la. Hmm. waaw d'accord. waaw. <laughs> foo jógee nii ak sa bu rëy. <laughs> ah dañ ko bokk. bébé xam nga. Mm. fan yii li ma perte dafa bëri torop sax. bien. xam nga boo waxee loolu je me sens mal à l'aise day tax ma fàttali sama erreur bi ma defoon. Eh, eh eh eh eh wuy ma wuy ma xam nga lan la loolu c'est du passé wax naa la ko. wuy ma man juste bi may wax dama daaneel a li ma la bëgg a wax mooy lii lépp dama ko jënd yow yaa moom. jënd. il faut jëlee xaalis. waaw mais bon xam nga bi problème yi passé xam ne naan tey dafa baax. tey yow yaa ma delloo dama jaar bànk xoolaat samay compte rek fa xaalis. ma hmm. mhm. ne naa jaar dindal la ci defal la ci ay quelques affaires xam nga c'est ça.

loolu jarul laaj Diop xam ne man bu ma nekkee almadi waroon na dellu dëkk ba bàyyi lépp mu ne ne sa kër laay tabaskee am naa lu ma la waajal. alhamdulilah alhamdulilah Mawne Touré man ni Mori mii teel mën na am ne. ah waay eh, teel man eh wax la teel. du ma ko laaj waaye teel waay sama xarit nga. day dellu si poche bi de. <laughs> ñaar fukki junni la. loolu xamul de après naal doon li deux cent mille muy trois cent mille. Ah, waay waay waay. <laughs> ay Souleymane Ndimbo lépp lu ma la defal sa yoru ko. Souleymane Ndimbo di may ma ñu ko xew. may ma ñu lan la may ma eh, ñu ko foo jox mu jeex eh kii salaamaaleykum. doo doo muy buntu bi. maaleykum salaam. ak chance noo def. doo bi buntu bi da ngaa xam ngi alhamdulilah jub yow la Cheikh gisoo gisoo kii wax doo bi doo yow la Cheikh wax la moom alhamdulilah bi daal maa ngi nii tons doo doo bi doo bi da nga da nga xam da nga xam kii ñëw kan la dégg wul sa gan gi tons noo def maa ngi fi doo doo bi maa yaa ngi am jàmm waaw eh, booy xam nga lan la man aw ma jàmm man boo ma gisee xam ne aw ma jàmm nag man waaw comme loolu nga bëgg a xam aw ma jàmm ala dama ñëw xool si rek ndax tey gisuma la ma ñëw xool noo def ñaata gisuma gisuma la ah, boy bu fekkee nag da ngaa ñëw nag pour am loo wax man pare naa pour déglu la loo ma wax rek baax na tons may wax xamoo looy wax ñaata fan gisoo ma te maa di urle ay ñoor ñaa deux cent quarante neuf ñoor urle gisatoo ma kay am na lu xew waxal rek ah man kat xaw ma lu may wax wax ma rek man amul problème ah déedéet tons fekkee loolu la kon baa ma ñëw dem. waaw waaw non non wuy ma kaay dama lay wax kaay man ma tëndee am na loo war a wax dama la koy ñaan billahi. Hmm, ah, ma man wax ma man te yàlla tax man wax ma rek loo ma wax baax. comme noonu la. waaw. tons ci si réeroon atelier ba man xam naa ne yow yaa ko jël. allahu akbar nga lépp. yëg naa lépp. oh mais yow ku ma yaakaaroon naa ñëpp may def li mu des yow mais loolu lépp indiwu ma fi man sama mbëggeel moo ma fi indi dama laa bëgg rek te yàlla tax. Oh. kon jéggal nga ma. jéggal naa la lépp. allahu akbar yàlla defal la jàmm. amiin yàlla suturaal la. amiin yàlla teeral la. man xam naa ne gàcce gii moom moom ëllëg bu ko naree am yow man xam nan nan nan ma bëgg wax bii safara rek <laughs> nan ma def ni uh ma dugg fa rek. kon jégal nga ma ni jégal naa la si ko bu sedd guy. kon suba mën naa ñëw commencé di omb ñoor yi. déedéet yow moom dàq naa la. jëlal jëlal baa nga toog jaamu yàlla. exécuté man maa ngi dem jërëjëf jërëjëf sa gat newul ci fu may jaamu ku ma dul jaamu. Diop kay sama yére yi nga sol tànn nga jër fu mu toll kaay ñëw set sa akara yaa ko man ku may jaamu ñax mi wàcc kaay ñëwal nee bu ma jëlul doo dem de kaay gàcce mooy def nii kaay ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal yëpp gàcce la kaay rek. naa ma jë naa ma jëlal ban nga toog. ñëwal te mënoon mënoon nga ma jëlal dara di ko ñafe Amadou Kumba dañ leen a naax mbaalu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog. Oh, eh. mana gede nani mana mana gede mana gede masa coono damaa toog ci kaw doon seetaan football ba si ak ma daan wóorul may bàyyi jóob mi wéet ndax fu mu toll ni moom booy wéet di xar dama sonn gën man dama sonn jàmbaar laa lu ne daj naa ko. Diop daam yoo xam ne kenn warul si dégg dégg ñu ñëw fii poñe la di la bànd ba rek ñu ne Diop lan la ñu ne daa sàcc ay tisi yow war ngaa sàcc kilifa bu ñu ni man nekk sa kër ñu naan eh, kër gële leen jàppee sàcc kenn leen fa sàcc leen fa jàpp ñu ne Diop loolu gàcce la si man man moo may xamee di sàcc ak sàcc ban njëriñ la am. man muy dundee yëpp maa ko doon ñafe. man jaay naa carotte man jàmb naa ñambi man liggéey naa apprenti car man jaay naa fël-fël man jaay naa tàndarma ndoxum siti li ñaan bàyyiwuma dara fel ma taktee lépp liggéey naa ko man goro sonn Diop sa njàmbaarte kenn duma ko wax na maag yow ñoo yeroon ndoo waaye réew mi fii mu toll xaalis das koy lijjanti dén ma ñëw wal fépp fu ma war a dugg naa fa nga boo yoree kër boo yoree kër doo xam noo def man daal bëggatuma nit ñëw fi ñu naan ku muy seet mu ne jóob lu jóob def ñu ne daa sàcc conseil wu ma la sàcc nit da ngay lekk lu leew man sàcc du sama la cent mille yar fukki junni teel ma woon beneen cent yar fukki junni ñaata laa la ne jox yar fukk muy trois cent defal sa poche. ku moom lii. maa la jox lépp te soxla boo am wax ma ko. foo jëm. ma koy ñëw waaw. maa ngi koy si nii lan koy sol. noo noo ko solee baax yow eggal fi nga jëm nag. xool ko. waaye yéen waaru ah man mi nga xamanteni ma ngi sa saaku xaas bu fess del di yedd job bi nga xamanteni tisi rek la satch Alisho Badjo ya ma ni

xam oh, nga ni waroon naa xëyee ci yow tey. déedéet kay man da ngaa sonn. imbécile bi nga xamante ni nii fi mu ne nii su ma amoon ñetti ñetti jiin dama koy sol. ay ay ay ay. arrêté nag génn ci li nga ne bàyyi li ngay wax nag. ñu bàyyee ku toog jàpp sama njàpp. ah waaye man de boobu ba tey maa ngi bëggoon ñu waxtaan. muy di fi xewoon keroog man ak moom jàppante bi ñu jàppante. te loolu waruma ndax bu dara sama yaay la. waaye nag nit dangay daw ba sonn bu yàggee il faut nga fipp waaye maa ngi jéggalu bu baax a baax ndax bu dul dara doomam bi ak ni mel ak man waruma woon a songanteeg moom. soxna si bi mu tëdd. faal ñuus sànni fële ku ciy wax. man maa fa ne maa war a àtte du ma àtte gis nga yow kii li ma yekk en tant que borom bi kii dina jur ab sàcc de. waaye déedéet Fane nag bul fàtte ni kii mooy sa aawo moom nga njëkk a gis ci jabar kon man su ma ñëwee damay topp ci ginnaawam kon nag waruma songanteeg moom loolu moom lu ma rëcc ci la bokk su ma yëgoon du ma ko def vraiment. tey nag tey nga ko doon rek la ba faaw man bu ma ci baax bu ma ci amoo dara lu ma ci baax li ma gën a loolu ma aw gisoo dama def genre ëffër tamit afin bi maa ko tey exprès. ay waay du la ci génn de man xoolal dama ñëw dem sax balaa ma fiy fekk dama indi problème comme moom du ci problème. waaw oui man. da ngay dem ñu bàyyi ma toog nii. war naa ay ci. man ba toog yàlla. yéen ñaar ñëpp lew ngeen Wah. Oke. Okay. Wah, kan? Ya, ini Viko. Oy pour li fi jotoon xew man ak sama yaay maa lay jéggalu bu baax baax man ak moom war ñoo jàppante waaye nag nit dangay daw ba sonn maa ngi bu baax baax ndax man ak moom ndax dara sama yaay la waaye nag li olof njaay di wax guy dina jur xetax moo la jur moom ma jur waaye yemuñoo jikko may ngi jéggalu nag bu baax baax ndax nak sama nawle nga ta kenn ku nek sa nawle moy sa gaynde li ngay don don don xale sama nawle nga mm-hmm. ma ngi ci jéggalu nak bu baax baax baax rek mm. tanto xamna li la yow si ko mais problème lepp sama yaay la sama yaay si boppam mo bari caprice man sama yaay man mënuma ko comprendre man dal suma le blame fen na le blame moy waro ko mën quand même deug la deug la deug la lu ëpp da nga daw nga sës man xamna li ngay dund duma xale tamit duma xale dëgg la moom xam nga dangay daw ba sonn waaye parfois il faut nga fipp wane sa bopp mais maa ngi jéggalu nag bu baax a baax te it ma lay wax ni la lii ma def mhm. dalay jox bon exemple ndax nag dëgg bu solo xale da koy for mag da koy for dëgg la koo tooñ nee ko baal ma muy mhm. yow di keneen ak keneen mhm. maa ngi lay jéggaluwaat nag bu baax asalaamualeykum. for waay Linguère. wuli nga mi ngoy. yee jamuli cuur. wuleegi naagu yooy yee yoo. jël frima ah, aja xuja si si ngaari jar mew ya ma tam li lolo tax fu mu mënti tol dama yegg si jàkkaarloog yow awa ajaa fu eh, dago sama xarit way jop yo li bu noo ko baña def jop sa bad sa bo boo xëyee day gën xam nga ma Bamba dañ ñu ko ya, bi lu leen boole mu ne yag deug la kon longtemps yàgg na ya. waye taxul nak kenn ku ci ne téye li nga téye rek te yàlla tax xam nga nag fii ñu toll nii seeti sa géer yombul te daanaka julli ay fan a ci des te xam naa ni man dooma neenal xee boo benn yoon samay mbir te xam naa ni bu doon benn doomu soble bu ma fi ñëwee dinaa ko fi jële dëgg la dénkaane ka nga ka nga wóolu waaye ah wuuti fa nga yaakaar de loolu wóor na <laughs> waaye ah. loo fi bëgg da yomb nga ko fi daan amee rek non nga koy amé kon nak sama xel dal na waaw <laughs> yow mom ko jox ndiki bu la né aña ngi ni xelop dal. yow man dang ci rawat sax. comme dam am fu doon dem ni xaar ma mu ñow rek ñow da nga fekkoon pos may gën ma la wax lool eh, xaar ma ñow rek ñu def li ñu daan def. <laughs> ceeb kontaan naa. la mel. du neenal nit. loko feug feug boy ñew mu nan la maa ngi xam nga ni ki te kër joxeem bi jox way waay yoo yàq na no pe cat dafa gar gidd gidd cat dafa gar yow daal. ah. yow suma amé ben suma su ma ko laajee sax damay daal di bàyyi lépp jox la ko toog. ay waay ay waay ay ko xeeb naa ay ay bii enveloppe ko ko mom ay enveloppe yow ba ko mom ay bii enveloppe ko ko mom ay enveloppe yaa ko mom ay yow ay enveloppe ku ko moom. ay enveloppe yaa ko moom. ah déedéet déedéet ay Diop bàyyi ngay def tamit ay yow it. ah lii boo koy def danga may rusloo de. waaw luy jooy. sama baay dani ma ndoxu bët yaara koy génne xol bu sedd kuy mbaa xol bu tàng. waaye tam boo defee ni man xam nga damaa gaaw a jooy joob li fii loo fi am rek sa sa sa wërsëg la yaa ko moom. si sa ah! yaari maa ngi dem te mu dellu si mu gën fee

ja enveloppe ba la naam ku fi taxu nag mu mën a baat rek moom aja xuja dama koy gëmm di ko génne bii lu mu doon dama tëj samay bët j'ai fermé mes yeux j'ai fermé mes j'ai fermé mes j'ai fermé mes yeux j'ai ouvert ايرامي قدي كي هذا اخرج اوف اوف وينه ايش كمان بابا عاد اخدمي لا لا لي ما قال لك الله قلنا ñaari doomi caagiri lii aja ko je kii daal barki yonent bi kii voilà le yow yàlla no kuba mana sax ndokk ba ma la joxe rendez-vous yow ci whatsapp yow Adja Khoudia yow seytaane kartu carte bi ñoo xitu mburu gee fenkat bi fenkat yeeg say weer nga mel ni silma xa ko doon geers déglul rek kii di huit cent mille laa ko waajal ko jëmmi moo ñë moo mën sa gàttaay boo mel ni biteelu gaz déglu rek waaw allo Adja Khoudia xam nga ma la doon wax si sa si sa ngaari jar mais yow déjà si ngaari doo doo sax yow doomu taal yow ma ma la bayyi ma la jep yow yow envelope bi nga xamante boo dajaloon yere yi nga am yep jarul nga jël walis mën nga ko duggal ci envelope bi yow yow defaloo ma ci lulul ñaari junni ñaari junni ya bon ya mëna tass yaakar ya xamade sa nopp yu gudd ak sa bëd yu xoot ah li nga may defante ki kan lay raccrocher oné ne ma ma ma ko sonday wokal ko sa bay ajaa ko je wokal bi di ñew man ya lek gatt imbécile bi li nga lii nga xamné mom nga tàlla abalo boo xamante ni loo am ci ay tuba yu tuti xajna ci bo ci yebon sa rob bobu nga sol ak sey musor bu mu jeex li xajna ci ngay xam ni ma ma wax ma raccroché olé di ma raccroché olé aja xuje yàlla nga dox dox dox dox dox ba ci ak agresseur ñoo ñu di taf nu yót sa jumbax bi yóbbu yow sa jumbax bi yow yàlla na nu ko taf yàlla na nu ko deux doigts te ba baaba tey la sama xol bi jeex aja aja xuje yàlla nañu mat sa nday nan la ni tiñ gédé xamul dara dafay naxe uteeg mbay ak numbe yoruñ dara di ko ñafe amado kumba dañ leen a nax mbaalu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog owe owe nogay jàpp na naar bi nogay jàpp na naar bi owe owe owe jofaal yi yow yaa ku jàq na la ñaan man moo tax fu mu toll nii man damay damay demander direct ci sangu-sangu yu tedd yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tabaski gii moom def maa tiital tabaski suma tiital waaye bi daf maa tiital xale yi seer nañu xaalis amul dëkk bi neexul ma lay ñaan nga dimbali ma defal ma tawfeex ubbil ma ay xéewal mu mën a am xar ngir njaboot gi ngir soxla numbe mii nga xam ne ji na ma teraanga bu ne. waaw waay. loolu ñaan rek gis la ngay ñaan maa ngi doon wax si waaw waaw ah boo tollee ci yenn situation yi da ngay wax ak kilifa gi kilifa gi nga doon waaw waaw moom laa doon waxal foo jëm suba teel gi tabaski fu mu toll ni jot na ba pare ay fan rek a ci des te li nga xam ne jot naa koo génn kaaje ko ci sama xarit yu baax yi wax dëgg yàlla mu ngi nit sama poos ma téye bëggoon a jàll ba sànjara wutal la fa xar wu baax ñëw indi la ko ngir tabaski ndax làq nga sama ngërëm toppewoo ma dara bëgg nga ma yërëm nga ma wax dëgg yàlla lire la wax. ko khas ba nga dajale ni denc ko. ah waaw waaw. wa lol man naa nekk. mais Sandiara ge nga bëgg a jënd ji xar dafa sori. ah wa bu ma demul Sandiara fan lay dem. do yem ci dalar gi. dalar gar bii. waaw ñooñu de. man ak yow ñu and dalar gi xolal man ta luma gatché de du ñu ànd ba fofu fi nga xamni ñom dañoo yabaate ay xaru 1 million 1 million cinq cent man dama yor lol kuy kaajee rek ñu lay may. wuyuma ma yo ñoy yow nee naa la kaay gunge ma kaay gunge ma ñu dem rek. dinaa la yëgal benn mbir de yaa ngi may yóbbu waaye na xam bu baax la nga fay wax ñoo jiitul. de jiitul rek ma topp sa ginnaaw. Ah, Touré man ni Mory Touré neexul wéttali kenn nag yow tamit. Touré damaa bëgg a xam da ngaa topp ci yàlla wala da topp ci ku yàlla yebal walla yow ah non. Hmm. yaa ngi waxtaan ak ah. moom doo xam lu muy wax. ni jaay gën. sa yii moom oui oui oui yii lee mu jeex moom bu fekkee ku ne cent cinquante quatre nga yor huit nga dese. kuris gi nag baax na lool nag waaye parfois da ngay xawatal sa bopp ni jaay gën de. <laughs> waaye. jërëjëf Fall. Mhm. fal dene, bo batay ma ngay deglu may mais waxuma dara. wa ah xana li ma wara jox pour ma préparer. wa yow soxna si yow dang ma dan top di ma laaje ni ki joxe moy ki mu ne ci loxom wala ki ko tek ci beurep way man dama yorul dara han ah? man damay jóg ko daanu di lijeenti néew duma la jox waye dang may may touti nak waaw yow Fall. yow xam nga yow picc nga kenn mënu laa tàgg ba doo taw tey yow mën nga ni sa kër gii nga yor fi say njaboot yor ñaari soxna mënoo ci ñoom dara. Hmm. luñ la wax nga ni amoon. parfois del bañ bañ lu. man na xolal maa ngi bëgg sonn de. Hmm. bëgg naa la lool nag waaye maa ngi bëgg a sonn du ma la wax nag dara say miir naa ci jub. looy bët lu sa baat rek la doon xaar nga sann ko ci ci gi dem bi mu dem foofa mo mo doon doon arrivé pay booba doon nga jël ku waron nga wax jogol jogol nu dem te Anita nga ni yow gede do gennu dox yow demo da ngay tok di ñaan waaw baax na man maa nga fay dem naa fi fekk coow rek sikki moom bi mel ni waa kaw pass j'étais allé ah yow déedéet kay xanaa du jóob mii laa joxoon trois cent mille nii ne ci kër ni doo wax te yor sa lam bu rëy ah ah ah what's up dad nga ni say what's up dad shush oh si house bi nga dëkk. ah uh, yow yow come man ngay waxal. yeah of course. of course <laughs> waa kii moom yow yow yow li ngay lakk lan la WhatsApp da ak ay. Eh? if fii nga dëkk or not si house bi nga dëkk. And that man maay borom kër gi. yeah so i am benn show bu modern hall. I think that Nogay la tudd Nogay. Nogay waaw. yes I'm laay ñëw pour check. ah kon yow sa niiga geeg WhatsApp geeg yëpp. Euh, nogay nga soxla. yeah of course. donc koy teel a wax nogay sama doom la. yow kon may ma ma ñëw. naa egg si biir taxul fii xaar ma taxul fii xaar yow. whatsapp nogay ngi ñëw. waay waay waay damaa yàq yaari palaat laa yow waroon na yoon nga xam ne maa ko tàcc tàcc nopp yi sama ndoxaan gi doo ko yàq ah koson bu ma la déggatee nga taxaw naan yoo ak ñi nga ak whatsapp uy uy man a fen nga naan show loolooy show fenkat bi kër gaa ngi toj nga ni mbàpp sim yoo nigere amado kumba dañ leen a nax mbaalu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog owe owe nogay jàpp na naar ni faal moom jaaxle naa tax lu ne mu dugg kay ku nekk ak li nga yaakaar Zeynab ma ngay jaay aram ma ngay waay Anita day maraan ah yeah yeah bu tabaski jub day day xar yi nekk ne ah. mu koy da nga fa dof sa bët ah, yàlla. wuy ma bul xool yooyu bul xool yooyu. ndegam yee ëpp yii. ah nan dem xool rek. waaye nan dem nga daan bul xool yooyu. Adja Numbe yii de waa teenoo dem teenoo dem xool beneen dara réew mi amul xar nan dem ci beneen daral xool nekk nii nga naan réew wano xar wi baax na ci cinquante cinq mille mën nga ko am cinquante cinq mille waaw wala soixante quinze mille baax na xar bee xanaa baaxul xoolal Adja Numbe xam naa ne sa xool ak sa xalaat lépp ca xar mee nga ko teg mais gis nga xar mi buñ ko laalee buñ fii la ñuy fekk tëj ñu ñu dem waay yow. xar mi mooy Sadio Mané bi de. bëgg nga ko yow bëgg nga xar mi. ah kuy gis xar mi di ko bañ. ah waay bañ ñu dem. kon daa mel ni sama surprise naxuma de. surprise lu lan. ndax xam naa maa ngi ñoo bokk bëgg-bëgg ni ñu bëggantee lañ bokk bëgg-bëgg. loolu yàlla def na ko. xar be daa ba ren lu ma liggéey maa ngi koy versé. koo koy versé. kon xar mi jëndal xar. kan kan kan. yow kan kooku. mbaa yow. kan ka jëndal xar mi yow. xanaa yow. Adja Ndour ba nga jënd xar. ah du jëndal xar mbaa da daw ba sonn. yow ñëw ci dalal bi ma yor cinquante nga jëndal ma xar trois cent mille. xañ na ci yow mbaay boo ko amoon da nga ma koy jëndal sama moroomi jeeg tey maa lu ma liggéey rek fii laa ko versé bëgg rek nga kontaan nga noppalu ah. mbaay mbaay mbaay bul def lii ñaanal ma rek yow tamit. quelle coïncidence je ne Pourquoi ni rek oui. Ah. Quel plaisir d'avoir retrouvé ma belle. Non, on a là combien de jours

Lila la. Lola la. Sans de la vie, suis. Paquet de bourse, tu T'es un quoi là? Bestar, un quoi banque. Mais oui, quand même. 200 000. De deux tout de lit. 300. Applaudissez. Applaudissez. Je gagne le bagage chez nous. Yo, hé, là, là, qui là? non mais c'est quoi ça mooy xam dama amee rab yow lii lan la loo ma waxoon. ëpp lu diis nga xaaj noonu yi. yow nag wax ak yow nag dafa jot yow lii lan la. 300000 la. lan la ñu waxante woon. léegi lii doo ko jël. lii la moo tax ma koy jël yow li su ma ko jëlee benn xar mu jeex sama yaay sama papa sama rakk yi ak man mii sama bopp. ba doo téye lii. lii du ma ko téye xalaatuma ko sax. fas yéene ko. kon daal lii doo ko jël. lii du ma ko jël lii lan laa koy doy wax ma leneen waaye lu dul lii trois cent mille. Hmm. lan laa koy doyee ci benn xar. Hmm. yow ak kan. man ak yow fii. Hmm. ana sama papa ana sama yaay ana sama rakk yi. man ak sa baay booba moo soof man sa baay mi la jur te mënta jënd lu di dépendre ci yow. sa sa eh! xoolal génnee si sama baay est-ce que yaa ngi may dégg. téel gis nga yow nag wax ak yow dafa jot. téel li wax yow wax ak yow dafa jot laa la wax téewu ma ko. Mm-hmm. lii la laa koy doyee. xam nga amul mu eh mais kii mais. xoolal bàyyi sama appel sa yoon nekku ci. gis nga wax ak yow dafa jot laa la wax. nuyu man li nga ma waxoon laa bëgg nga génnee ko nga jox ma ko. sinon lii doo ko laal lii. lii la laa koy doyee yow gis ma ko jëlee benn xar mu jeex. ok. ok. da nga koy dugal.

trois cent mille yi pare nga ci. Ah. neel un dinaa ko yóbbu jox ko sama njaboot. ndax sa ñaari jabar laa yor ak ñaari doom yow doo sama gat. ah maa ngi ba foofu. sa baay bi tax nga may pes nag ne leen wutal xar mais c'est vrai lii moom dinaa ko yóbbu jox ko sama famille. man kaay c'est kaay. loolu doon kaf.

xamul dara dafay naxe puteeg mbay ak numbe yoruñ dara di ko ñafe amado kumba dañ leen a nax mbaalu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog owe owe ça va man de sang bi sama yaram bépp met sang bi mu jeex tas laa def mais léegi mu jeex General Field. Ah, Ay, Bruce Guru dito, panganan. Ah. Nice. Ayo. Oh. sais que danga ma mere et c'est normal parce que comportement yi ma am yëpp xam naa ne neexu la et c'est difficile sama diggante ak yow li mu mettee ci yow noonu lay mettee ci man je suis vraiment désolé baal ma àq yow fa nga demone yago fa di ak sa xëxët bi ma jàmm dee daal li ma jàppoon yëpp laa bàyyi déet waay voilà toog toog toog toog doo daanu doo daanu waa la xew sa yaram bi dara beeñ dara daluma ba sa waaw kon looy looy fërë fërëxi nii naan da ngaa gaawantoog yooyu. dee daal sama benn dëkkandoo bu yàgg laa tasal ci marché bi. waaw. ah moom na ma xaritu jëkkëram xalimaam du laal suuf. xalimaam du laal suuf yow loolu la mooy yoon waa léegi après. maanaam sëriñ la. sëriñ yow nekku ma yaa may waxati waxi sëriñ yow xaw ma sëriñ gede xaw ma sëriñ gerte lu ñu def fii. jël sama xaalis bi yobbu ko satch ko ngay duggaat ci lolu am nga jom. wa be yow tamit dañuy dem rek kooku fu mu mënti nek di nga xam xaalis bi fu mu jógee dégg na ko ay la dañ essayer wuy ma xaalis bobu mën naa ko liggéey yaa ngi dégg te mën na ko liggéeyaat comme dem na dem na nañ bayyi nonu rek ha ah, sant yalla mais s'il te plaît yow tamit nak ñu dem ta te wul fi rek la. man yow xam nga ni loma ñaan rek loma ñaan xam nga dama la koy may mais bii moom bàyyi noonu. dinañ sonal rek. waaw jàpp si yow tamit oho waa baax na léegi xam lu ñu def nañ bàyyi ba julli bi wees fi mu julli gi laa tal ak sama calcul yii may def ah, bi nañ dem benn yoon rek chance bi lañ am kon mën nañ ko dama ne xam nga ni seretaan bii boo bawul yaa ngi naan kooku xalimaam du laal suuf boo bawul léegi man maay suuf xam nga sax ah c'est normal parce que man nga nopp ah loolu am na hmm. loolu moom am na xam nga ñu def <laughs> man sama calcul yi waaw comme dañoo jub julli ji daal bàyyil ma kii ba ci kanam bu ko defee ñu mën a xool jàpp jour dem ko bu mu yàgg de bu yàgg hmm. bu yàgg loolu mën a yow la te tey sax dama laa bëgg a jàppale si wàññi ah yee yow koy pareel acca ñu dem maa ngi ñëw waaw kay waa ñaw bi de laa jël si woon damaa war a dem dëkk ba eh, maanaam ñëw bi de desoon na tuuti desoon na tuuti parce que fan yii damaa xawoon a feebar après ak coupure courant bi xaw ñoo sonal li ngay wax baa mooy la man dama la jox sama tissu jox la sama khas bam mat seuk heure bi sama ñaw waron na fekkum pare dama wara dem tabaski ji li nga wax ni fan nga ko tek bu wax lool lu tax ba duma wax lool lan nga bëgg leneen ñu wax ko. waaw yaa xamadi wa yo ya xamadi. jarbaat na nga def. wa yéen yéen li ba kañ. palaasu jàmbur. atelier jambour di leen naxante yeen ni ah. ci sa yoon say lex mel ni pombiteer yu ñorul. bu yaboo lan moo ci sa yoon boo ma ko waxatee ma tot sa lu ah. attention attention ah, eh, ma eh samay problème maa koy réglé ah. góor boo fekkee ñaar ñuy wax xamoo lu ñuy wax da ngay ñëw laaj. nit dafay maalu léegi nag su bëggee mucc. ba jaay ma guerre bi lii rek laa lay ñaan. comme que yow da ngay solidarité da ngay solidarité eh, eh, te sa gat newu ci yow yow laay ñuus ba nga tëdd. ñëwal kii sama jabaat lenke la. mais yow sama yoon. waaye yéen a xamadi. madame yow ku gros ah. attention ci risque gu la. kër risque gu la je dis que ni man duma dellu ginnaaw ci yenn ya. maman man nga xamul booba. attention. booba man man nga xamul. say lii la nga mel ni docteur Mousse man nga xamul lu. waaye yow ma yow yow. mais bu ma ñaan de. bu ma woo kat loolu laa la wax rek. waa léegi jaay ma lépp. jaay ma histoire bi yëpp jaay ma ko man léegi. xanaa dama la jaay ma ko dama taw ne sama. en tout cas Kéba bu ma ñaan dara bu ma ni commissaire bu ma wax dara bu ma ñaan non non non. non bali. kan la commissaire la. <coughs> moo commissaire. kii xelam dafa neexul. kii sax. maa laa newoon de rafet maa laa newoon de. waaw ah, neexul foofa laa jógee. yéen a seen xel yi neexul. non dafa neexul. moom mii. sama tonf bi nga doon wax. ma mbaaw. ma ma raffinerie mbaaw def naa fa juróom-ñaari weer juróom-ñaari eh, juróom-ñaari weer def naa ko raffinerie mbaaw léegi nag xam nga julli ji buy waaj a ñëw foofu foofu dañu fay dañu ay copine foofu ay copine la ñu yónnee raf niiri mbaaw ñu yónnee ay copine ak ay ñamala mais toog kaay toog mais mais fan laay toog raf niiri mbaaw laa maa ngi dem raf niiri mbaaw bu laalaat ma ah. la la <laughs> ay copine la ñu leen jox hmm, eh, doy <laughs> doy na waaye yow itam. dee na yow itam nag naa la toppatoo nag. damaa njàpp yi ponante ko day bëndal ko ay ay ay nga. bu suba duma ko wax waaw leen rek ma ci xaw xawa xaw si tuuti rek. dëgg la ajana di nga ko am de. ah Fall looy wax nii. ndéem yaa dabb sama bànneex ba tardé sa yoonu Dakar. ah Fall yow bul fàttali man bala may génn keur gi dama lay defal nga lek bu sour suma amone rendez-vous fi ba kiri koro sax dama lay defal nga lek bu sour nan ba mandi te yow bul fàtte ni man sa jam la yow yaay sama sang dama laa wara jamu de bolé kok nak yaay samay karoy bakkan kula la samay bët joy ndene ni bëgguma la dund demaat ci bi mo war la li may ah ah ah ah arrêtel ah, nak ah, ah, arrêtel nak fàlle na nak so xol bi set set na. jox ma lex bi. Mm-hmm. ah kontaan naa. te sa lex yi dafa mel ni dutee dutee ci de dutee. léegi xam nga nu may def. waaw. Euh, nañ àndandoo génn man yomb ca daral ba wutal leen xar mu rëy. bu neexee yàlla. xam nga ñan ñoo naan su neexee yàlla ak su soobee yàlla. waaw ñi nga xam ni amuñu lii. ay ay faal man oh. dama am yow itam faal. faal chaque jour ma ni la looy def del jiital bu soobee yàlla bu neexee yàlla. ah waa baax na. mi ngi mel ni ma tiilu dànku ceeb. naan koy su dul yow lii duma ko lekk wala su la neexee ak su la naqaree te xoola ni loolu sax dafa sori jox ma lex bi su la neexee ak su la neexul danaa ko puut lu ci man. li nga xam ne. am na daal damaa neex ci kër macha allah man daal damaa neex ci kër. maa nga ca yoon wa. man mii man moom man dama ko ma léegi. waaye na nga kii de soit sànq. damay teel a ñëw. yow de ay lii laa béy naa suma ay doo xam ne ñoo la. waaw maa béy ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko taal ñu faral laa nga cin. góor kenn gaa ngi. Eh, gerte sax yaa jënd ko wees soog mu tooy. téye sa loxo. maa ngi doog a jël. dimbali ma li ngay wax yëpp maa ngi fi taxaw. li ngay wax yëpp moom sama nopp. kii mel ni gi mel ni ku ñu paase mos. ku ñu paase. non bàyyi na xuloo nag boo demee ba yor doom ju mat tudd mat tabaski da ngay bàyyi xuloo. mais boo defee li la war sama digganteeg yow xuloo du am. moom laay def nii. léegi nag lii ñaar fukki junni la. waaw yu wow koŋ. téel jënd ci mbubb jënd ci musóor jënd ci puudar jënd ci efereer gaal ah, ah la loolu bokk ci jënd ci li nga war a def fii boole ci ndugg tabaski. lan ndugg tabaski. Ah yow li nga fi lim yëpp ti te t'en parler. yow léegi diwlin dafa yokku. moo tax ma jox la yaar fukk. soble dafa yokku pombiteer dafa yokku vinaigre gi yëpp amul dara lu yomb ci marché bi ah léegi instant bii nii nii bitig yëpp a ngi jaay tissu dëgg la waaye bu ma jëndee tissu ana koy ñaw. kan moo koy ñaw ma war a jënd dàll war a jënd poset war a jënd lépp nekk ak samay nawle ci kër yow yow yow saami lan la man. mani mël fa. mël fa wala maa ngi fi jëm ñoom ak sa yàpp. baax na daw bëri na problème trop kuy dindi kuy wuti doo ko xam taxawaay wuti ah. na naar bi jàpp na naar bi. waaw góor gi naa def. ah sant yàlla. nga eh, jënd ci sama ndox mi. ndox. waaw. man de ndox mi moom ndox mi lu muy jar. ñaar fukki jënd ci te yàlla kan nga naan yow jënd ci te yàlla tax lii lan la. ñaata nga ni te yàlla tax. booy boo jaay ko yi. lu tax eh, ma def loolu bon ah. jënd te yàlla tax rek jënduma te yàlla tax demal sa ndox. waaw jënd ci <laughs> <laughs> maa fi gis sax xar mu li rafet na ku baax jógal ah li rafet na jógal jógal yow man taluma ak waaw waaw ah, ku baax na nga def yë yëkkati ma gi ma xool fii masuwaar gi ah waaw waaw kii bii bii bii mi ngi ci ñaata. bii jox ma. 180 dafa bari defal mako 120. 120 day ndaw ci xar mi. ku moom xar yi yii. defal lu jox dama jaayal xar mi. waaw waay defal ma loolu rek nag tamit. waaw jox ma 150. xoola 120 boo ko ma jënd boo mënul ma dem. ku moom xar ma le bële. indi xaalis bi. ah waaw da ngay dof dof xam nga nit yow da nga koy jaay jaayal rek looloo gën gaaw. mais foog man laa la jaay. waaw man gis naa ko kay indi xaalis gis naa li ma jaay de gis naa li ma jaay man dama man dama mën jënd xar de xar bu baax la ay puubu xar nan lay nekk ci ay poos yëpp allahuma sall na la la duul duul laa wax xam nga lan la yëgal yow oh. nga lan la frotté bi ka eh, kii loolu indi xaalis bi. waaye non lëfee fi lëfee fu yow defal nii defal nii. xool xoolal defal nii defal. oui sama ndey. sama kal bi. indi nga fi. waaye sama xar ma yow sa kal indi woo booy bëgg a dee yow booy jaay ah? kii damaa waroon na rocc ñaari junne xuteet laay def ba mu taxaw fa naan ah, jëndal tey ah, jëndal te kii tax ma xottati lépp daggate ko ba mu jeex ci sa kanam ma ma Sénégal lan moo tax nu soof yow da nga yor sa xaalis ñu naan neex yàlla wala incha allah waaw ki yoru kay bu la neexee taxaw am problème man maa ngi sama xaalis kay lan laay topp naan te yàlla tax wala sànnaa salaamaaleykum yéen seen xar yi moom yow yow korose nga dugal korose boy eh boy boy boy jaay waa kii day lay watoo wala boy yaa ngi gànn boy boy boy yow nii nga eh boo ay bëñam wadd boy eh boy yow yaa ñàkk ki naan yow yaa doome alam rek kii day sama su ma la jàppee dama lay wàcce yow. kon ma wàcce sa ndey kon ma wàcce sa ndey yow xamante nañ waay déglu rek la gën a bandi fop xam nga ko la tànn per kii dama koy wàccee xam na man xool du ma bënn du ma fukk dama dama tuur man yow dama dama wëy sa borom eh wuy ma baax baax waaw imbécile bi boo demee sax danoo gees yaa naqare dimbali su ma ko bàyyi woon tey la lay ndox ba nga tëdd ñaari doomi aram yi doon xeex ñaari ko yóbbee jënd ci mbubb jënd ci musóor jënd ci poudre jënd ci FRR gaz ah, ah la loolu bokk jënd ci li nga war a def fii boole ci ndugg tabaski. lan ndugg tabaski. waaw. Ah yow fi lim yëpp di te t'en parler. yow léegi diwlin dafa yokku. moo tax ma jox la yaar fukk. soble dafa yokku. pombiteer dafa yokku bi nekk rek yëpp amul dara lu yomb ci marché bi. ah léegi instant bii nii nii bitig yëpp a ngi jaay tisi dëgg la waaye bu ma jëndee tisi ana ku koy ñaw. kan moo koy ñaw ma war a jënd dàll war a jënd poset war a jënd lépp nekk ak samay nawle ci kër gi yow yow cent mën. cent quatre vingt dafa bari defal ma ko cent vingt. day ndaw ci xar bi. Euh, euh, ku moom xar yi yii. indi xaalis bi. Ah, dof dof xam nga nit yow da nga rek looloo gën a gis naa ko kay. macam macam yakuna. Alhamdulillah minasaitan. Aiman aku Grand sœur lan la. Grand sœur. ma yàqub tool ni macam jaaxle xamatuma sax lu ma war a wax. comme quoi. ñëpp a ma bàyyi. amatuma dara fu tolu ni wala sama appartement bi amatuma sax lu ma ko fayee. lan laay wax sama yaay ak waa dëkk ba lan laa leen di wax sonn naa. daan naa dégg ci mag mu baax ni de naan xale bu romb xottu banaan tarxis du puso du paaka waaye ku ci tarxis ku nekk yépp ko di nga soox guddi waxi noppi di nga jooy sa kenn du la nax <laughs> sama lépp loo musoon wax dëgg la tey ngay soog a xam ne duma la doon wax dëgg la. ma toppoon sama bakkan man duma ma sondeel waaye bala ñu maa ëff ma xam suma bopp. waaye yow xam nga ni sama tante moom. ah waa ci biir boo ma wax loo mag comme yow moom sa tante morom nga ko def sama yaay morom daal nga ko def baax na man sama wax du ci bëri parce man fi mu toll nii damaa sonn. jàmm. ki ma daan lif. waa Ndeye ne lan la. ki ma daan lif rek petit cola indiw sa xar. lan la. ki ma daan lif rek petit cola indiw sa xar. waaye lii la la nii. yow lan la. kon dëgg la. waa lan la lan la. Fatou lan la. kon dëgg la. kaay kaay kaay kaay toogal nga daal kaay kaay toogal. man de mun naa sama téléphone bul tudd sama écran bi faal. waa dugal. waa lan la waxal ak man. wallaahi yaa ngi dee. ani xar mi. sàcc nañ ko. ci bu soobee yàlla. waa santal dalal dalal ni jàpp. may ma ndox. ci bu soobee yàlla. doomi aram ji yow yow laay waxal yow da ngay duul li ngay def yëpp du dëgg ci bu soobee yàlla waay waay waay waay waay may ma ndox ci bu soobee yàlla. lu xew. xar ma xar ma sàcc nañ ko. ci eh, bu soobee yàlla. am am am naana naana naana naana naana may ko naan naana di bu soobee yàlla sàcc nañ ma ci bu soobee ni la nga ne ana xar bi dégg nga lu mu la wax yow it dégg nga lu mu la wax xar bi dem na la ilaha illallah déedéet waxoo ma loolu pare nga naan ay sama waale foo demoon xar bi bañ sàcc ko foo yeew xar bi la ilaha yor moom xam ci bu soobee yàlla ah. xaalis ba lanu sàcc ci bu soobee yàlla man man ah, léegi wuy ma toogal bu baax toogal bu baax kilifa nga toogal bu baax tey nag dañ laa yëkkati ba ca kaw daane la si suuf sa yow ba nga dettooloo ngay soog a xam te ni detteelu nga man xale bu ndaw laa si sa kanam sama papa de toolam yee mu yor saboxiyetini ku boya. faalewu ku yor matelas bu nooy ndax pajaasam bee doy na ko yow sax lu la indi woon fii bang nga fii ñëw jàng moom fi indi woon dama cartouché nga yor sa appartement dëkke mbaraan ma xamal la nag li ma jël appartement bi yëpp su ma tëdd kenn kon yow luy sa problème ba nga bañ a dellu ba ma xamal lan lay sama yaay wallaay wax waa dëkk ba. loolu gàcce njar nga ko naan ba pare bu doon ay rongoñ la pour bu feesal potu ndaa sa bos jeex na xool eh, eh, xam nga lan laa bëgg di prépare tes bagages ñu dëkk ba oreel fajar bi duñ fi bàyyi. dëkk ba. seen dëkk du nekk situation yi mu nekk ku nekk naan ko xar meeg bëy bi. xar la uti ji woon yàlla dogal na ne xaalis ba jël na ko nan la. Eh, dimbali ma waxuma ak yow. Hmm. sama jëkkër laa waxal aw ma benn baat bu may wax ak yow. <laughs> eh xam nga lan la. Eh. man def naa li may def ba ban sama xar daf may fekk si fii ah. Oubé est-ce que yaa ngi may dégg. <laughs> Diop Diop man waxuma kii di mel kopp ndik yow laay wax. Hmm. yàlla mën na joxoon jaarale ko samay dox ma jox la ko. Hmm. moom moo ko jëlaat. te yàlla mën na ko xaj jëlaat joxaat mu ko ëpp léegi. wuy sama mbay lan la lan la lan la lan la. Eh, te sàcc baa feeñ. ña lu naar bi def lu kuy naar bi ah. waaw xam nga ne Fatou waaw xamoo histoire naar yow da ngay seen xamoo ci la man man gars yi. man xam xam naa histoire naar. lu Diop lu naar bi def. waaye defal naa kii toog wëngalul nii. xoolal am na naar bi lu mu wax. ëpp jàpp na trois cent cinquante mille. eh lan laa la wax nee naa la yàlla mu la joxoon ne jëlaat ko moom moo la ko joxaat. bu borochet. nu borochet. xanaa xamoo ne xaalisu carte kenn mënu cee jënd xaru julli. foofa yaa ngi fen nag. Ah. foofa yaa ngi fen xaalisu carte mooy mbaam yi daw. te yow dañoo bëgg nga tëj kaamil gi ban tabaski ba pare. dégg nga bu li bu waat kaamil dinañ firil benn aaya. aaya yëpp jàng nañ ko. دم دم طرش طرش لك يا لك من منك يلا نكايمن يكسلن نيكتي جوخلن دغلا وا بوما موكنا مو جانا موكنا نك في لا خم ndax dañu la ci mam setu ko jël ma bëgg nag loola yàlla maye. Mhm. bu fekkee am nga ci lëf. Mhm. Hmm. Mhm. ñaar ñi nga xam ne ñoo ma woomat. def ma deux doigts. jël sama kalpe. Hmm. waaw ma bëgg nga woomatal leen. sàcc yi ñoom sàcc yi. nuuraam ba fii delloo ma samay koppar. Hmm. waaw gis nga liy Jóob wax. moom olof naan loolu nit lu ko yomb rek mu sàggane ko. maanaam xaritoog bu mu xaritoog man ba ni ndaw ba léegi moo tax mun tëggam xam-xam mu nekk ci man te yàlla seede na ni du dara si man xale yi dawal seen bopp ba fii laajte fu duusi ne eh. jóob joxe leen duusi ba pare xam ne ñii ñooy ay sàccam biir bi daw laa leen di des macha mm-hmm. allah te teg leen daw du dara si man ah. maam waaw maam moom daanu ko def moo taxit nee nañ la ca maam sa ta koy jël mm. ba yow man bii de maa si toog moom ah. waaw macha allah bëgg nga say sàcc feeñ moom rek laa fexeel ñoom ñaar ñooñu nga amal ma leen seen karaw poqataan nga jox ma leen poqataanu càmmoñ bina nag. ma def si lu ma siy def bu soobu yàlla ñooy ñooy dawal seen bopp ba fii laaj leen fu du si ne. lii neex la ah? waaw. yow fooy jëlee seen karaw poqataan da nga xam ñi la dama xaayaan. ku dégg séeréer ku dégg séeréer. ñaar ñi nga xam ne samay koppar. leer mat naa leen. Mm-hmm. kenn ci ne karaw gi bara moom. Mm-hmm. yërnu naa la ngay saw. boo ne cuqeet ci sa karaw yi naq. loo ca def mu justifié li nga xam moo ne ci gone yi. maay wax ak yow man sama bos daa béy maa lay maa ani ñuul laa wax ani ñuulal. lan ani ñuulal ndem mën nga dara. gis nga Diop man sàcc nu ma yow lan sàcc. bu fekkee bëgg ngaa jot say koppar demal fu nga gisee woon xale yi nga laaj leen fu xale yi dëkk wala ñoom ñu otal la karaw pokataanu gone yi nga indil ma ko ma def si ñoom biir bi daw bu soobee yàlla. kii kii mën naa dawloo biir kenn yow yow yow kii ana xam-xam yow Gédé ana sa xam-xam yow kon respecté wu ma. respecté wu ma te barki yonent bi ma amuloon lu ma seet nga ni non leen laa la yëgal de bu fe xam nga lan laa lay yëgal bu fekkee ca douche bëgg wax ah, non kii ah, lii laa dëkk. siis wi ko raxas fii nga njëkk a yow li nga man ay faaw xam nga ni bëgg a ñëw moo tax rek mais fii dafa sori ah ma man bëgg a topp sa bëgg-bëgg topp lu la neex yow tamit ah yaaxal nga ma quoi mais dis yow euh, sa xarit bi foo ko bii kii sama mag la doon àndal ba may gën a nekk xale mag la sax ci man. <laughs> da nga bëri dugg-dugg quoi yow jaaxal nga ma et j'ai fait une remarque Yon bi yëpp damay wax ak yow da nga ma tontu on dirait que tu ne te sens pas bien lu xew. bien je sais pas mais j'ai un mauvais pressentiment. yow a un mauvais pressentiment. Ouais, je sais pas mais bon xaw ma lan moo espérons mu nekk positif. baax na nañ ñaan yàlla positif et puis la prochaine fois del sor ceinture dégg nga. xam nga ne mënuma takk ceinture sinon je mets sinon je je sais pas. gisagul dara dikkat ji maaleykum salaam maaleykum salaam na ngeen def. ça va naka mu. ça va bien ça va bien ça va. merci beaucoup jërëjëf. jëkkër ja nekk nii. oui naka yaa ngi ci jàmm. ça va bien ça va ça va alhamdulilah tey. ça va bien merci. ah d'accord d'accord d'accord d'accord alhamdulilah. mbaa expliqué na la sama waa ji waaw waaw am na lu ma wax. Hmm. Hmm, waaw. kuy borom kër gi. te muy dëgg. ku kër gi. yow la Fall. bu ay gën ñëwee. leen sama borom kër ngi ni toog. bu dee la maa ngi jéggalu. ñambaas la rek yàqul sa. dëgg la sama borom kër la. ah góor gi da de def waay. Fall la Cissé la. Cissé ngaari jar mi mhm. Fall. Fall kii sama yaay la. Ah, mau masalah? Mm-hmm. Iya, Sama ya. Sama awal lah. Okay, wujud kay. Fan, mm-hmm. ki magam larun andal sama dëkkandoo dobi agla. Eh. Fan, mm-hmm. kii burung këram Dan dañ koo sàcc xaalis bu baree bari. léegi nang mada jen woon ak moom kerok. mu expliqué ma ko te ku ne xam na bi mom dafa aay ci yooyu. léegi nag ma ne ko woon na vraiment moo tax bi ma ko soxna si waxee rek. Mm-hmm. man nag man nag daanaka gëw ma yooyu sax. dëgg la ma ko ah nañ dem rek. ñu wasu ci ah xool ba xam. du laal suuf. Hmm? Mm-hmm. lu mu la wax di nga ci teg say bët. bu dee loolu kese la sa xaalis di ci jot incha allah. man na bis bu xaalis bi feeñee. Mm-hmm. dinaa gëm ni nag sëriñ am ah xamal naan leen de. fii mun a indi de doo ko rëccu. man kay li ci xel ñaar mooy moom sëñ bi bu la defalee ba nga jot say koppar noo doxaleeg sëñ bi. <laughs> sëñ bi daanaka lii nga ma wax rek dafa neex. <laughs> ndax jot koppar googu nga ci wax. ndax euh, mbir mi takku na takk goo xamante ni. Mhm. ay millions yu bari la. Mhm. nga ni bis bu mu ko retrouver nag sëriñ bi edema ci. Mhm. boobaa danaa ko ni pàcc ci digg bi. ka ma koy annoncé. wala sëñ bi. ma jox leen ci genn wàll gi. say koppar feeñ ma la may wax ak yow de. muy ku yàlla ah Touré man ni boori kaay kaay waajaa ngi nii kii la maamam yoroon kees yi njugub kii la maamam yoroon kees jaam kii la maamam rey njama la waaw waaw Touré ni boori yow laay waxal waxaa kii lu génne xam-xam bee bari nag waaye doo sa xaju fi nag waaye ñëwal nag <laughs> waaye kaay yi nag <laughs> kii la yàlla may waaye eh, xoolal eh, maa ngi fàttali sa ndeyal ah, lii bu nu rek <laughs> waaye kii xanaa kii mbaa ko yàq Sering Jële. da ngeen ko xam. yow ki na la doon wax de moom moo jëlee sama jëkkër xaaliss bu bëri bi. wa ki di Kumba. wa ki may ngi sax gi daanel daal lu ya ya kay. mi yow eh? ci loo nekk. mbaa ay yow lu na mel di jëriñ. ay yow. ani waa famille bi ñu ngi si jàmm. mbaa yaa ci jàmm. ça va am nga jëkkër de. yàgg ya, na. déedéet kay eh xale am na jëkkër lee waa alima ci baaraam. waa xanaa léegi si nga nag. waaw léegi moom changé naa. man moom man léegi am naa jëkkër moom deuxième dame lañ. moo tax nga mel ni nga mel. xam nga ñun ñaareel yi ñun dañuy bomb. may naa la loolu. ñu fekk dañuy bomb. sa saag bi. dëkk bi dafa doy waar de ma chérie. damaa bëgg xaalis damay wër di jaay jënd jaay la ci commerce lañ nekk sax. gis nga mi ngi sàcc moom. mooy loolu gëmuñu yàlla. Eh, yow xam nga sàcc ni ñu mel ci dëkk bi. fan yële paase sama jëkkër. waaw dañ ko jëlal ay millions muy mel ni dof ci kër ga. looy wax nii yow. yow loolu bari na de. ay million laa la wax de ay million sàcc dafa mën a tas yaakaar mel ni tuurkatu ndogu. muy jaaxle mais jéemu leen ci dara. ñun xamuñu yooyu moo tax wuy ma bul inquiété wu ñëwal sama kër am na paa bu fa nekk lay wax ni kooku lu mu la wax du dañ daanaan ku li fadili doo changé xamul neen bu mu la gisee sama sama sama problème rek la woon fa woon bu ko wàdde xoolal ñëwal sama kër amatuma gaay jox ma sa numéro léegi man ma man eh xono fi eh nel bu xet ma xol xolal bul dof xam nga ma xam naa sama xaalis fu mu dugg di nga ko fa génne ma man ak yow ba police dégg nga li ma la wax foofa day gaaw foofa day gaaw nihmal wakiil nihmal mawla mais kii sàcc la. déedéet demeewul noonu de demeewul noonu de mais de kii de kii da nga koo jaawale de. la de waxal looy wax. kii da nga koo jaawale. kii lan la am lu muy expliqué. nihmal wakiil nihmal mawla nihmal wakiil nihmal mawla. mais mais bébé tamit lii doo ci wax. Eh, wuy ma xam eh, sama xaalis mu dugg lu ko génne dégg nga ni ma la. wuy ma yow kii trop laa nekkoon. nihmal wakiil mu ne waxtu bu nekk mu ngi tëdd ak soxna si moom te am doom <laughs> ma génneloo koon ay sarax mu joxoon ma xaalis pour ma génneel ko ay sarax léegi nag si sama raw xaan yi da see am koo xamante ne day randal sàcc la dàkk naa ko sax moom nga ni ca ba may ñëw fii pour génne sarax yi moom sama raw xaan ma gëstu mu ne ma jàpp saag bi xaw ma saag bi lu si nekk ma tëj jukki si laa gis ko par gi bari loolu ma tëj ko saag baa ngi fee jot. Eh, eh, eh, sama xaalis jox ko taxawal. maa la ñaan kaay toog kaay kaay yow xam nga ni mën a jox dina daje. mën nga ni mën a jox dina daje. waaw yow. yow xam nga lan laa bëgg la dégg. bu ne tëjal buntu bi day daw. Hmm. day daw day tëjal buntu bi. yow doo génn fii bu ngay sàcc kan bi nga doon. waaw yow sàcc bi nga doon. lu nekk nga dindiloo ma ko ay sarax yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ay ñetti kilo kemb mu mëkkaloo ma ko ay ay ay petit cola ah ay jinjeer yoo man sonn naa bébé mais waxal yow notice eh, eh, eh. sama xaalis de boo ko bi léegi dugg sin ngay fanaan wala ma toog yow sa baat mo mooy wooto wuy ma bu la police yow ndung nga ja adam bu dimbale ma déglul rek yëf yi dinaa ko ko réglé sëñ bi ko réglé sama xaalis déglul rek dina dina ko génne dégg maa leen di ñaan gir yàlla bu fekkente ni yow saagu xaalis biñ la jox foofa ngay joxoñ sama kër la yow gis nga fii fii <laughs> nii ma la kii lu saag baa ngi si biir jotuma ko laal de ma ko nu ma ko joxee noonu laa doxal indi ma sama xaalis fii indil ma sama xaalis te ma mat sëkk te xool yoonu duus ba lay xar nga jaar man xaalis bi dama ko liggéey dama ko ñàkk dama yor ay magasin nit ñi yaakaar ci man ñu bëri yaakaar ci man ah mu naan damay sàcc yow xam nga ne fu danaa danaa tase yow amul loolu. voilà. kun kun kun yéen xaalis la am. sànq baa ngi nii kon te ko ba mat sàcc la. waa ba ji bala. lii lim fi nekk yëpp kon. ñoom ba maa ngi dama day. man alhamdulilah lii lii ñaata lii. j'ai retrouvé mon argent j'ai retrouvé mon sac. allahu akbar xaw ma ban muus moo la piqué ba laaloo ko yow li tax nga laaloo lii sax xamoo ko sama xaalis dama ko liggéey dama ko ñàkk kenn du ko lekkee noonu. jërëjëf yow kon yow yow waaye déedéet allahu waaye nag des na. des na sama un million de francs faa yi ma la joxoon. encore damaa bëgg nga teg ko sama loxo ba ma sëkk. am na yaa ngi ko mayoon ah ah soo ko moom hmm? la woon. ñaw sarax yoo xam ne kenn xamul lan la ay petit cola la ma digal. ay jinjeer ay loo xam ne kenn xamul lu mu doon. ana sarax yi nga def dama dama ni day day duul maa moom ay picc la daan dëbb. xam nga sama xaalis génn ko. appel la police tu m'appelles Togala non non non Togala bu ligoté ko yóbbu ko. waaw ah, xaar waaw ah, xaar xaar xaar waaw mooy trois ma joxoon keroog. la. kon kii moo la ko jox. d'accord kon taxawal waa taxawal rek. sama xaalis képp ku ci nekk jàppale de ndugg sin ngay tabaske. <laughs> voilà. <laughs> yow yow sama tur. yow keroog ma gis muy jàmbat naan diwam daa jeex may naa ko. kan Seynab man. <laughs> man waay yow xaalis sàcc nga ma may. ay yaay. ay waay ñii dem dungu sin dana bari sama kër gi dina leen xam dama xamoon ne da koo mais tu appelles la police quand même pour police man ko lijjanti taxawal waaw wax ci xaaral man ma wax la rek waaw fukki junni te yàlla rek tax waaye dama wax rek te yàlla tax ma ko may man ma jël ko dem di damay wuti xar foofa lan ma deux doigts man xaw ma quatre doigts la xaw ma deux doigts foofa xaalis boobu moom bu ma doon rey tey gisuma ko tayal yow déchet bi voilà. xool ko sàcc bu am yërmande. yow eh yow suivez sa tubaab yi. Eh, tëmb. kii dañ koy lamb lamb dañ koy lamb. waaye kii nii ma doo kii. ma la ma kii ma ma Euh, manqué na trois cent vingt mille. loolu la alors moom la nga jox kii nii. waaw may leen ma may leen ma. may leen ma may leen ma papa may leen ma. ay demante police yooyu yëpp jar kii mënu laa rëcc. ndax nga ba dugg ci kër gi léegi may leen eh, tonton jox ma li nga ko jox moom nga ko jox. Mm-hmm. manqué na trois cent vingt mille. ma mat sëkk. Mm-hmm. ma ku ko lekk da nga koy génne. waaw yaay bàyyi léegi jox dugal ma fi sa numéro ma transfert la ko léegi. ku mënti doon sama 300000 papa yi ak sama 20000 tante yi. lii moom la kii la. eh. yow. lii moom la kii la. maa ngi koy benn zéro. defal la kekkee bàyyi ma pare rek. kii la.

la po yow eh dafay. bu ngeen bañee rey ko. la porte est libre. doyul jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. yow bu ngeen bañee noqos ko moomu nooy nekk. nit ma loolu laa. yow man ma kii nit ma may waaw nit ma kii man ma kii nit ma moom laa yow xam nga lan la bëgg yow. nit ma la kii nit ma moom laa. nit ma la kii nit ma moom laa. nit ma la kii nit ma moom laa. nit ma la kii nit ma moom laa. nit ma la kii nit ma moom laa. nit ma la kii nit ma moom laa. sa xol mi yow mel ne xaj ni mën ba kiiw moom la yow nag yàlla ne boo jaaxlee rek ma yow xam nga la laa bëgg <coughs> eh, waaw kay fa loo yor ci dox dina day génn léegi xamal la laa bëgg yow xaw ma da ngay sëq xaw ma da ngay fenn dugal defal say bagage yow dugal dugal bala maa football waaw yóbbaale lool ni ni ma moom léegi nag yow yow laa bëgg xam lan nga fay naar bi li moom ci naar xama naar bi nga fay xamul si sa imbécile bi nga li nga hmm? xaalis ah trois cent mille yi ma gagné si naar laa ko fay lan xaalisu xar trois cent mille yi nga gagné ci naar bi moom nga moom nga fayee gratuit yi ñu doon yuuxu di siifale fële waaw kon daa ñun ren duñ tabas kon kay maa ngi doog a xam man la <laughs> du kuré doon wax naan man du ma ndog waaye man oustaz Ahmed Diop Fall mbëgg baram yàlla kese <laughs> du ma julli jàpp na naar bi oowe uh-huh. oowe Job Fall indeegul xaar bi